allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin nabiul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman barke borom tubaa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar euh, ni leen baaxu ñëw du leen ziare fii ci seen télévision Touba TV ci seen émission bi diwaanu Ramadan ngeen xam ni bi koor gi duggee ba léegi danoo jooyal émission yépp jooyal ko ci weeru màgg wu tëdd wii nga xam ne mooy suñu weer ñun jullit ñi di jiital ci nuyoo beeg ziar bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér yéen yi mu am yëpp mu defe ko ni mu ko bëggee ten ànd ko moom ak mbooleem njabatuk sëriñ bi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw di ko jàppale ci liggéey bi ak mboolem taalibe yi noonu lañu ziare sëriñ Cheikh Jëmb faal mi nekkal maam Cheikh Ibra waaye di ziare mbooleem kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi te lislaam ñor leen fenn fu ci ne ku ci nekk rek ñoo ngi lay fekk fa nga nekk jox la wàccuwaay bi nga xam ne suñu borom moo la ko jox di nuyu bu baax téléspectateurs yi di nuyu tamit personnel bi nga xam ni ñoo nekk ci télé bi di ci jiital sunu waajur Serigne Cheikh Balla sàmm mi nga xam ni mooy kilifa kër gi wàcc ba ci sëñ Jibril Ndaw mi yor programme bi ba ci sëñ Mbàkke bu ñooñu nga xam ni sëñ Mbàkke mi production bi ak mboolem caméraman yi ak techniciens yi rawatina sëñ Daam mi nga xam ni moo nekk ci régie bi ak sëñ Abdou juuf waaye soxna man laay di leen jàppale ci liggéey bi caméraman it sëñ Pape Cheikh Bey mi nga xam ne moo leen jiite ak sëñ mansu ak mboolem caméraman yi ci des waaye sëñ Atumaan mi nga xam ni décor beeg yëpp moo ko yor moom it donc koy nuyu di ko siyaare bu baax a baax di nuyu bu baax sëñ Mamor mbaa yi nga xam ne moom it altine ju jot ci waxtu wi ñooy ànd di bégalante rek sëñ bi nga xam ni mbégum neen la moo xam ne du jeex mukk ba ilaa yawmi diini saa su nekk ñu di ko ànd ak ñu ñuy baaxoo di invité ci plateau bi tey jii nag ñu am ay invité yu am solo yoo xam ni incha allahu rabbi bu sëñ Mamour nuyoo ba àggal rek ñu présenté leen ndax ñoom lañ fa séenee àndal plateau bi tey ci waxtaane sëriñ bi nga xam ne boo ko dee waxtaan yaa ngi waxtaane mbooleem lu baax kon sëñ Mamour ñu bàyyi la yow tamit nga nuyoo mbokk yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog yow bisimilah aouzu billah min asheytaan irajim bismillahi rahman rahim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin jërëjëfe borom Touba est-ce que Serigne Touba Serigne Touba amut moroom bokk jullit yëpp bokk taalibe yi noo ngi leen di nuyu téléspectateurs yi ak téléspectatrices yu Touba TV fi leen baaxoo nuyoo muy émission bi di diiwaan di ci siyaar baax baax mbooleem ñi fiy jaar ñëpp rawatina bi sëñ Amidou Diop di jiite sëñ Maam Cheikh Anta Samb sëñ Afee Cobaan sëriñ Jibril Ndaw ñëpp kenn ku ci ne di bay ba ci yow moomu sëñ Moussa Faat télévision beeg téléspectateurs yi dañ koy teg sa loxo di siyaar baax nag Cheikh Mamadou Mountakha tey ñaan suñu boroom yàggal ko lool ba li mu naal lépp mu àggale ko ci kem kàttanam te naal yeneen i naal nu ànd ko moom di siyaar bu baax a baax mbooleem kilifa dina yëpp dem ba gaawaan siyaar sëñ Ahmad Mbàkke mi nga xamante ne mooy xalifa sëñ Mamour Fati siyaar sëñ Mbàkke tàkk bu baax siyaar sëñ Muudu Maamun si Fallu ak sëñ Ahmad ndax di gis nga démb ci bisu tari alxuraan bi nee na ñu ñuy topp di siyaar mbooleem ku sutu ci sëriñ bi ak seex boo xam ne sa wéyjur mbaa sa maam àndoon naak sëriñ bi ba làq ngërëm moom ngi lay siyaar ci jotaay bi suñu safaan nu am mbégte siyaar baax waa Masaalikul Jinaan nuyoo euh, murid yi ci cap gépp ñu ngi koy teg ci loxo suñu jëriñ ji ñu suñu Tuubaa booleel muy sëñ Ahmadou Mbàkke yu fay ak mbooleem ñi koy jàppale ci liggéey bi tey nu am mbégte dalal ñoo xam ne dalaluñ leen ndax du ñu ay gan seen ab liggéey lañ seet si euh, turu jàngkat yi ñëw ñëpp bu nga xam ni daanaka mooy sëñ Akassa sàmm te ñoo ko diggoon murit yi gis nga ko nii mu ngi nii toog di jàmbaar joo xamante ne nii bërki démb rek li mu def ci télévision bi ñëpp koy apprécier ñëpp di kontaan ñun ñu demul sax suñu téléphone daa mel ni ñun leen dalal te xam nañ suñu diggante moom muy koo xamante ne fi mu yóbbu xasida dégg nañ ko waaye sëñ Moustapha dal ay kilifa kilifa yoo xamante ne ni kenn ki sëñ Daaru Assane Ndiaye mooy maamam Cheikh Baara Ndiaye mi ngi nii toog di jàmbaar joo xamante ne eh, addunaam ak doolem lépp jeexal na ko ci liggéeyal Cheikhul Khadim làq ngërëmu nag sëñ Sidi Muxtaar lool te fekke nañ ko ay yoon fi sëñ bi mu Musaana ñëw du am jàmm lu ne da koy def di xiital ci taalibe yi ko yàlla booleel ci sëñ Touba di leen nampatal fii ci usine Bentali waaye noonu la defaat foofa ca tëgg di dimbali nit ñi nag ci zaahir ak ci baatin waaye sëñ Moustapha li ñu gën a kontaanloo itam mooy koo xamante ne mën naa ne way jur la ci nun waaye ku murit yëpp di bégee nga xamante ne jot nañ ay appel yoo xam ni eh, ci bitim réew ak ci réew mi mooy bi ñu ko affiché ndax ba latewut ci écran yi waaye nag ku ne xam na ni benn bëyit rek bu ko dojalee mu doy àdduna ak alaxira muy sëñ Moustapha Badiane mii ki sëñ Moustapha bu ñu ko dalalee dalal nañ sëñ Ablaye Sarr ca Ndar dalal nan euh, mbooleem ku yëngu ci ahlu ahlu xasida gépp muy jàmbaar joo xamante ne moom itam li ñu wax ci ñii ñëpp valable na ci moom mu ànd ak nag euh, soxnaam muy soxna maam sëy moom sëñ Fall moom sëñ Euh, Abdou Mbar moom sëñ Balla Coro ñoom ñii ñu àndal nga xamante ne soxna Ndey Faatu mbakke mii mooy magam ñu bokk lépp nga xam ni sëñ Balla Coro moom la sëriñ Tuubaa tegoon ci Jurbel waaye moom la defoon secrétaire particulier nga xamante ne lépp moo koy saytu suñ suñu faa xam naa ñeneen ñi dëgg-dëgg danañ leen yaatal waaye nag ki ñuy wéttale ci plateau bi ñuy séentu sëñ Muudu Mbay Sàmb mooy sëñ jaw mi nga xamante ne àddunaam ak dooleem lépp moom itam jeexal na ko ci sëriñ tubaa xasida yi loolu su ñàkk saa sàmb xam na ko ñii seetaan xam nañ ko muy kenn ci nun moom itam dal na noo ngi koy siyaar baax di ko defal mention spéciale di siyaar baax mbooleem ñi teew ñëpp nag dinañ tudd ñëpp ndax tey ñoom Pape Diop gis naa leen mënuñu ko munuñoo toog sëñ Mbàkke Caam euh, euh, ak sëñ muudu kànji ak sëñ Jiili kànji ak sëñ Jeng ñoom ñëpp ak sëñ àll ñoom ñëpp kenn ku ci sëñ Maamun ah ñoom ñëpp kenn ku nekk ñëw euh, lii lépp rek mooy xam ne dañuy dund fii sëñ Touba tey di ziar cameraman yi di ziar euh, cadreur yi waaye di ziar mboolem kuy technicien te ne ci télé bi ziar bopp yi boobu yëpp nag jëlaat nañ ko teg ko ci sa loxo ndax coordination bi ni nga ko defee dafa aw yoon lool te murit yëpp a ngi séentu ñu satisfaire leen ci xaside yi waaye satisfaire leen ci waxtaani sëriñ bi sëñ Moustapha ba kàddu gi ñëwaat ba ci kanam jërëjëf euh, sëñ Mamor euh, waaye sëñ Moustapha Badiane mi nga tudd ànd naag euh, soxna say mi nga wax ak soxna Ndey Faatu waaye soxna Aji Aydara ci délégation bi la ànd ak soxna Adja Badiane ak soxna Adja Mbuub yaakaar naa ni ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko gunge tey ñëw toog jàkkaarloog ñi nga xam ne ñooy téléspectateurs yi xam naa dañ leen di jox directement ñu nuyoo rek mën a tàbbi ci waxtaan wi ndax taalibe yëpp bu waxtu wi jotee seen yitte mooy jëglu kan mooy sëñ Tuubaa yaakaar naa ni sëñ Mamor Cheikh Baara njaay mii tey euh, ci taalibe la ñu war a waxtaanal ak taalibe nag lu yaatu la te ak taalibe mooy lii jariñ ab taalibe akum njébbal kon euh, moom euh, point bi nga xam ne tey ci la ñu war a waxtaanal day point boo xam ne mën nañoo wax ni mooy yoonu murit ndax ak taalibe comme doomi sëñ Tuubaa yi ñooy jaay seen dundal di ko jëndee ak taalibe loolu mooy wane lu waaye am ak taalibe la ko may sëriñ Moustapha mii nag ci xasida yi la ñu war a waxtaanal tey tànn na ak xasida yoo xam ni incha allahu rabbi bu ci ñëwee ñun dinañ xam ne li sëriñ bi waxoon ni karaamat yi xattu yat yi sama karaamu mooy sama mbindum loxo yaakaar naa ni euh, kon ñaari poñ yi ñi yi nga xam ne moom lañ fas waxtaan waxtaani sëñ jaw loolu tey ku déglu rek da nga déglu am solo sëñ Moustapha Seck noonu ngi lay nuyu mu ànd ak sëñ Moustapha Badiane moom it di kenn ci moom ak mboolem délégation bi ñu ci des Cheikh ànd naag délégation bu am solo boo xam ne jombul euh, incha allahu rabbi des na leen lim léegi ci kanam rek bu neexee yàlla euh, kon sëñ Moustapha ñu bàyyi la nga mbokk yi nga xam ni ñoo jàkkaarloog yow bisimilah. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. gannaaw bu ñu santee yàlla subhanahu wa taala. sunu borom moom mi nga xam ne laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ñuy julli ak di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te lool di suñ ndigalu borom ci képp ku gëm inna allaha malaikatahu yusalluuna ala nabii yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ala muhammad ñuy sant it ki nga xamante moo tax ba ñu xam nan la ñoo jaamoo sunu borom ak di dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy cheikhul qadim radiallahu taala anhu wa nafaana bi barakatihi amin moom mi nga xamante ni xiina budi al islaam ila yowmina haada kenn mosul gis jaayante gi nga xamante ni jaayante naka ak yonent bi sallallahu alayhi billahi allazi la ilaha illa huwa alkarimu alalimu xayaati wa mamaati wa xarakaati wa sakanaati ma sayidina muhammad rasulillahi salallahu alayhi wa sallam di sant it ki nga xam moo tax ba ñu xam nan la ñoo liggéeyale bi ba am ngërëm ma cheikh ibrahima fall radiallahu taala mi nga xamante ni yéem ngi mindéef lañ ko tudde ndax mooy yéem ku nuyoo boobu nag ñu jiital ci sunu kàddu di nuyoog lislaam nga xam moo gën ci nuyoo yi ñooñ ci jiital Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ñaan sunu borom gën a ko fi yàggal te gën ka may wér te ni ko sëñ Moustapha waxee lépp lu mun naaloon su demee ba naalam yépp jeex ñoo ngi ñaan sunu borom moom mi nga xamante ni iraadatoom ak qudratoom ñoo lëkkaloo nga xam sunu borom lu mu namm rek mu am mu nammal ka naalaatal ka yeneen naal ngir mu gën fi yàgg te ñu yàgg feek moom te ànd moom ci liggéey bi di it sant ak nuyoo yit di ci teg sëriñ Maamoor Mbàkke Muhammadul Murtada te di ko jox wàccuwaayam di sant it tey nuyu suñ Cheikh Jëmb Fall li nga xam moo fi toogal maam Cheikh Ibra sunu jaaree ci moom nag jaar nañ ci képp ku am ngërëmal sëriñ mag bi di beral nag nuyoo jëmm ji sore lool ci sëñ Moussa di kenn ci ñun te it lu bari suñu jëmm yàlla nga ko jaarale ci loxoom ñu tedd yooyu muy Cheikh Abdoulaye Khadim saar ñu ngi ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér te di sàkku it di dagaan ci mbokk taalibe yépp fu ñu mënti dégg ñu ñaanal leen ñu ko mu yàgg fi te wér ndax yàgg ak wéram fii sunu njëriñ la te njëriñu lislaam la noonu la ñu nuyu it ki nga xam ne dama ko tuddee Baxrul Asrar muy dem ba Mbay nga xamante ni lu bari ci lasraar moo ñu ko jàngal ñëw nag nuyu ñi ma fekk ci plateau bi te jiital ci ki nga xam mën naa wax ni mooy borom jataay bi ndax sëtu yonent bi sallallahu alayhi la ndax sëriñ bi léppam yonent bi la woon muy soxna aji ay dara di ci teg it ñi nga xamante ni ñoo fi toogal it cheikhul xadim di deretam di soxna ndey faatu mbàkke ak soxna maam say mbàkke di ziyaar ak nuyu it sëñ cheikh baara mi nga xam ne ngi dogal ci li ma jàpp ñoo ngi soogaa gise waaye gis buñ ko gis it mu dal suñu xel lool macha allah waaw kon sëñ bi ñoo ngi lay ziyaar te del jox sa wàccuwaay te di ñaan suñu borom may lu gudd fan ak wér waaw seede yu rafet yu seede ci yow yëpp yal nag suñu borom yokk zaahiran wa baatinan ndax yàlla du jeexal maa indakum yanfadu ma inda allahi baaqi di berndeel nuyoo nag sëñ akasa sàmb moom bi ñuy wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñu laajee sunu yaay Aïcha lu jikkoom dafa ne alquran waaye sëñ akasa sàmb su ku laaj ci jikkoom du lay xasida mooy jikkoom kon ñoo ngi ko fi ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér waaw di leen nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen jiital plateau bi ak Serigne Diaw mu nga xamante ni suñ diggante yàgg na lool ndax ñoo nekkoon doon daayira Subul Salaam daawoon di ànd di liggéeyal borom Tuubaa ba tey it ñoo ngi koy ànd te yàlla na sax yàlla na yàgg waaw yemale foofu nuyoo yi ba ñu dellu soit te ziar mbokk taal bi yu fi nekk yëpp jërë ngeen jëf. Euh, sëñ sëñ Moustapha kon bu ko defee ñu bàyyee kàddu gi Cheikh Baara mu nuyoo ko mbokk yi nga xam ne ñoo moom bisimilah. ausbillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi ma uxfiya lahum min xurati ahyunin jasaan bima kaanu yacmaluun xabli bi jaahi man huwa almuxtaaru dunia wa oxra xayra ma axtaaru maa ngi nuyu àdduna bi yépp di ñaan yàlla subhanahu wa taala suñu kàddu fekk leen ci jàmm di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général de Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi te wér te liggéey yi mu am yéene liggéeyal ko seriñ tubaab mu def ko nu kawe njortam di ñaanal sama wasila Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Mokhtar di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di ñaanal itam sama way juru bopp soxna May bintu Cheikh Sidil Mokhtar ak sëriñ Habib Diop doomam ak sëriñ seex Ndiaye di suñu jëwriñ ca kër ga ak mbooleem njabootuk sëriñ Baara gépp njabootuk sëriñ Sidi Mokhtar gépp di nuyu itam suñu woy juru bopp sëriñ Abdul Xaadir Ndiaye di xalifa sëriñ Daaru Asan ak sëriñ seex Yada ak Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye xalifa sëriñ ma Massamba Ummi ak sëriñ Baara Ndiaye sama mag ak sëriñ Basiiru Ndiaye ak mbooleem ñi ñu seetaan ñëpp Euh, ca Touba bu ñu limee day yàgg di nuyu itam ñu àndal muy sëriñ Jili sëy sëriñ Seexuna Silla sëriñ Oustaz Samb sëriñ Modou Jum sëriñ Mbàkke Caam ak sëriñ jiili Kanji ak euh, sëriñ Jóob ak euh, gaa yu baax yi ñu àndal yépp rek di nuyu itam ci jataay bi sëriñ Mamour Mbaye mi nga xam ne sama digg ak moom ñëpp xam nañ ko ak sëriñ Moustapha Kan ak suñ àll kan mi di nuyu suñu wayjur bu baax wi sëriñ Moustapha Badiane di ko am mbégte bu wér ci jataay ak moom di ci dolli kowaat bu baax a baax ak suñu suñ jaww mi nga xam ne moom itam ñu ngi koy siyaar bu baax waaye di mujj rek suñu mag suñu idol ci lu baree bari ci àdduna muy sëñ ak mii ndax ba ñu yàlla boolee ak léegi ëpp na fukki at di dem ba ndakaaru di di metti laa xamante woon ak moom ñu bokk benn muy sama mag daan ma teete ci lu baree baree baree bari ñaar moom xam naa ne gisuma ku ko gën a def wala ñett mooy mën a wird mën a joxe sa alalam ak mën a xelal ndaw xel mu rafet gisuma ci dajeeguma ak moom keneen ku ci mel ne moom waaw léeg-léeg ndakaaru tànc ma tànc yoo xam ne maa sama xarit ba sëñ maxtar Silla maa ngi koy siyaar ak sëñ Moussa Janna ñu ne nañ wëri akasa waaye mën nga ko wër ay fan nag doo ko gis waaye boo ko gisee rek moom sa aajo faju <laughs> barki démb gis naa ko ci télé bi mu ne aajo ju dugg sama nopp bi mu faju ma ne ah man xam naa ne sama ajo bu duggee ci bi moom day dugal loxo bi ci poos bi rek mu faju xaw ma nag aajo yi gars waaye man moom <laughs> waaw man moom wax dëgg yàlla fu damay toog fu fu ne di ko waxtaanee waaw xam naa nag xamee bee yaatu léegi ndax euh, boo yaree gone ba mu màgg léeg-léeg da ko bëgg a gis sax muy tuddoo <laughs> waaye nag ñu ngi lay seedal na moom euh, kenn mënu laa fàtte ndax nit nga koo xam ne koo jaxasool na nga yëg ne marqué nga ko ci dundam. te it bàyyi nga ci moom ay jeexital loolu nag eh, jikkoy sëñ tubaa la waaw sëñ tubaa dafa nekkoon jëmm joo xam ne nit daana ko nuyu dong soo demee day mel ne dafa taal dara ci sa xol ba na nga meloon dooti na mel loolu nag léeg-léeg dafa am nit ñu mel noonu boo leen fréquenté ci benn jataay képp dangay ngay jële ci jataay bi loo xam ne day defar lu bari ci sa dund loolu nag yàlla da koo def ci sa ci yow nii ma ko waxee xam naa ne ñu fi toog ñëpp ku nekk am na foo jaar kon nag ñoo ngi leen di siyaare bu baax tey am mbégte ci tew di siyaar nag ki nga xam ne moom lañuy mujj siyaare muy sunu jëwrin fii ci ndakaaru muy sëñ Mbàkke yu fay di ko xam ne euh, képp ku gëm sëñ Tuubaa te bëgg a am ngërëmam rek doy na la sëkk ab royukaay ngir taxawaayam ak pastéefam kon sëñ Maam Mor kon baax na sëñ Jaw mu mu nuyoo suñu àkk saa door a door ñoo ubbil dañoo nuyoo ba noppi ubbil ñu ubbil ñu jotaay bi bisimilah. bisimilah. bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di di def nuyoo bi siyaar bi sëriñ Muntaxa di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd wér li mu yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa lépp def ko ni mu ko soobee te ànd ko ñun te làq ci ngërëm di am mbégte bu baax di siyaare Moustapha ñi nga xam ne yàlla dogante ñu daje ci plateau bi ñuy ñun suñ jawriñ sëñ lu Moustapha Badiane ñu yàgg lool mu def lu ñu ñu koy ñaanal suñ borom dolli taw feexam di ko siyaara bu baax ma moom nit koo xam ne nit ku baax la nit la koo xam ne tamit ku bëgg sëñ Tuubaa la nii mu mel ci la mel ci loolu nag muy jafe xam ci yu bari yoo xam ne mën nañ ko wax waaye jotaay du ko maye waaye daal ñu ngi koy seedeel ñëpp suñ digganteeg moom di siyaar bu baax suñ Maam Mor ak suñ Moustapha di siyaar bu baax ci kilifa yi di sëñ baara moom li wax ci moom rek doy na dañoo wax ne nit ku baax moom saa boo ko gisee rek bu waxee nga xam ne ku baax la te li mu wax ñu wax ko ci moom doy na sax kon ñu ngi yaakaar ci moom baax di ko siyaare bu baax a baax di jox wàccuwaayam siyaar baax suñu ak sa euh, di ko ñaanal moom gudd fan ak wér mu mel ni li ñëpp wax rek ku ñëwaat it moom ngay wax suñu ak sa benn melo la te day kenn ku daj ñëpp ku ko ku ko tudd da ngay jàpp ne moom yow rek la defal wala yow rek la am lan teel loolu nag jikko ju baax la kon ñu ngi koy ñaanal di di dara jee xes tey yàlla suñu borom guddal fanam lool te wéral ko dama tilii leen ci barkeb sëñ Tuubaa ñoo ngi siyaar nag mboolem ñu fi nekk ñëpp di andi nuyoob siyaar waa xabbaan gépp di nuyu ñëpp jéggul jërëjëf euh, Cheikh Mamadou Diaw noonu nga waxee rek noonu la demee Cheikh Baara waxee ko ni euh, ak si ñàkk saa la bàyyi bu nuyoo waaye ni ko Baara waxee noonu la demee ndax dama koy faral di wax bu ma ko jotee téléphone ni ko bayit ba ko nuyoo dama ne ko muhammadun fardun yafooxu tasniya waaye wa faaxa jamaan wala daa yaa wax ni muhammad mooy ki nga xam ni mooy kenn ki représenté ñëpp loolu sëriñ wax ma ne ko yow da ngay jëmm joo xam ni jëmm nga joo xam ni ñëpp dañ laa bokk comme ni ko seex Bara nga xam ne ko ne am na ci yow wàll woo xam ni jikko ju rafet mooy may loolu ndax sëñ Tuubaa ni woon sëñ Moodu Mustafaa ak sëñ Basiiru sëñ Fàllu ñett am ci àddina dégg bëgg gis bëgg miin bëgg ñu dégg bëgg aw la ñu lay dégg ci mbir di la ci bëgg ne leen bu ngeen bu ñu leen dee dégg ci mbir di leen ci bëgg na ngeen defar seen jëm ba ku leen gis mu méngoog la mu leen doon déggee waaye miin bëgg gi nag mooy jikko ji ni waaye na ngeen defar seen jikko ba ku leen dégg bëgg leen gis leen gën leen a bëgg su jaxasoog yéen la muy rëcc mooy yeex a jaxasoog yéen ngi mooy njariñul kese lay fekk ci yéen ak jikko yi mag makarimal axlaa loolu nag dafa ne ci moom nit ku baax la nit ku sell la nit ku yaatu la am lanteeg ñëpp la waaw man nag euh, man sama sama wàllu bopp yàlla dafa maa boole mu yàgg ñu jaxasoo ci biir ak ci biti siq yu bari yoo xam ni lépp lu baax la ak lu rafet mu nit ku yiw ku tedd kon bu teewee danañ euh, danan danan lépp moom sax la ñëpp xam ci moom ak ñun biral loolu tamit ba nit ñi xam ni loolu mooy li am kon su ñàkk sa ñu ngi lay siyaare bu baax di la dalal di la bàyyi yow tamit nga nuyoog mbokk yi jàkkaarloog yow ubbil ñu jotaay bi nag ci xasida doon ak tàbbi ci li nga xamante ni mooy waxtaan wi bu ko balaa balaa sëñ Maam war a jëlaat kàddoom bismillah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 wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim ala saxaabati wa saadaati kullihim ridwaanu rabbil ardi wa samaawaat assalaamu aleykum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi maa leen di nuyu nuyu boo xam ne am na tàmbali waaye amul yem waay di si gisal sunu yaakaar tey ëllëg nuyu Cheikh Mouhamadoul Mountakha te ñaan suñu boroom guddal fanam wéral cëram te yeggale yéeneem noonu laay nuyoo it sëñ Mouhamadou Moustapha Massamba Mbacke di jëwal ni kër sëñ sàmba ak sëñ seex Jëmb Fall di jëwal ni Cheikh Ibra ak jëwal ni kër sëñ Touba yëpp ak mboole maalamul islam bi yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu suñu kilifa gu tedd gii nekk ci sunu ndeyjoor sëriñ Moustapha bajan xam ne waajur la ci ñun nijaay la ci ñun mag la ci ñun sëriñ la ci ñun kilifa la fi ñun di nit ku baax nit ku jeex ci sëriñ bi ak xasaayit xam nga bu yàgg ca xam gu jëkk ka sëñ jaw mi fee seere la ci rawatina ku tedd kooku mu tudd léegi sëñ Abdoulaye Khadim Sarr nga xam ne man ci moom laa defaroo waaw dama bëggoon àdduna lool waaw yére yu yu nu gomul sax daawuma ko nangoo sol dama si daan sonn yenn koo yenoo yenoo yenn ba defe ni man sax may sëñ Tuubaa waaye ma dem ndar nag gis ko gis sëñ sëñ Ablaye Bamba Sarr mu sol benn eh, eh, eh, popeline bu wert toog ci benn roq rek man leen man di sëñ bi ñëw jàng mi laa gisagul ñun ma moo nekk ma leen déedéet <laughs> waaw booba laa daal di régler nag <laughs> ba ma ñëwee daal di defarwaat joyante sama toogaay <laughs> barke alxuraan nga xam ne dafa jeex ci sëñ tubaa sëñ sëñ Ablaye Bamba dafa jeex ci sëñ jeex ci xasida yi bala koo xam nga nuyu ko tey jànkatu xasaayit bu loo tuuti tuuti mu jox la ay wor ma ak cul ak i teggin wut lum la jox donte tàngal la sax mu jëm la koo jox ba si Abdou Khadir Mbàkke waaxu ba dugg ca këram yu tedd yooyee gane ji ko siyaare ko seet ko ak ku baax ci sëñ tubaa rek ba tey mbàkke kajoor gee doomi sëñ tubaa yi tëdd mu di fa mu di ko dundal kon noo ngi koy nuyu bu baax di la nuyu di la yóbbante nuyu ci moom ñaan suñu borom guddal sa fan ak bokk yu baax yi nga àndal rawatina suñ kilifa yu tedd soxna ay dara ak soxna si mbàkke ak bokk yu baax yi ñu àndal yëpp ñoo ngi leen di nuyu di nuyu baax sëriñ Baara Njaay mu baax mii li mu wax lépp ci ñoom la nekk ñoom ñoo baax rek ndax baax moom mi ngi ta mi ngi tàmbalee ci sëñ Daaru Asan ni mooy sa maam rek doon sëkk waaw ndimbalul yàlla foofu la tàmbalee ndax bi sëñ Tuubaa tàllalee loxoom ñu jëkkoon a tàllal kenn du leen dab sëñ Daaru Asan te ñu jëkk a tàllal la bokk dafa jéggi dayoo sax sama xol ci la nekk tu bëgg waaw dafa am benn bis ma dugg ci armeer yi ñu doon rob seen soxna su jigéen Roqaya Saar yàlla na ko yàlla yërëm bañ ko robee ba noppi ma waññeeku di génn gis barab bi ñu bind ci rawdatu Sëriñ Daaru Xasan Njaay ma daal di summi samay dàll dugg ci biir raw bi jàng fa xasida siyaare ko ñam sama yitte daldi ñibbi bi ma tëddee ba guddi gént góor gu digg bi nit rek takk ndomb baat takk ndigal sol ñaari forog ñoo mën la sëñ daaroo San Njaay sànq ba nga fa jaar da ma faa fekkul da ma fekkoon ma génn <laughs> ma jug yow moom làmb sans poche jox ko àddiya waaw mu daal ñaanal ma daal di ci gént gi <laughs> ba ma xëyee delluwaat ci ba waaye loolu doy na sëkk ci seen jëm yu tedd yi te loolu feeñal na ko moom mii ndax sëñ Daaru San Njaay mënoon naa baax lool moom mii mu ñëw ndakaaru def comme man ni ma def <laughs> topp lijjanti bi ak mbir yi àdduna yi waaye fexe na ba mi ngi dundal xam-xam di dundal diine defar jëmmam defar waxam ba bërki démb rek maa ngi koy tooñ ni ko baa ma dara <laughs> waaw baa nga ca yow yàlla na ko yàlla yërëm waaye moom moo ko gisaloon ni ko bàyyil xam ni bu bàyyi woon dara mën na ko cee bañ a fekk ndax ña bàyyee ngi fi waaw <laughs> ah, dañu gisal lu baax rek njaay ñoo ngi ñaan sa fan gudd te sa barke yokk barke alxuraan te mi ngi dimbali nit ñu bari ci loo xamante ne nii lëmb na àdduna bi yëpp léegi muy murit wala ballonnement wala télé te ngi def lu man te am na ñu bari ñoo xamante ni fi mu ne ñoo ngi ci téléphone bi di ko def te leer na leen ne nuñu ko <laughs> te seetuñu seen digg ak yàlla waaye mu ngi ciy sàmm ah, li wax wax barki démb dégg naa ko ba ko saa njoogu waxee nu ko ah, sëñ Baara kon yow da seex ami dong mun ko ah, ñun ñëwuñu fii di taxawal di affaire sëriñ tudde sëñ Tuubaa dafa seexaloon suñuy maam loolee ñu di ko sàmm di ko dundal waaye mi ngi koy dundal kon yàlla guddal sa fan. ngeen wax ne am ngeen gan gu mag kër gi man xam nga du ma gan maa ko war a dalal moom mii ñu dëkk dëkk bu yàgg nag ñu di ko rafetal sëñ Jaw sunu kilifa la sama mag la sama xarit ñu yàgg lool fii Ndakaaru xam ne ba may door a ñëw déggan ak yor mbuusu yu bula yi sa ak mag yu baax ci Ibrahima Mbay lañ ma dalal dalaloon ñoom ñii ma wàcc dég daqaar ñu dalal ma fu nu jëm yóbbu ma sikaab googu ci kër yi sikaab yi yëpp ñoom ñi wakaana xaqan xale naa nasul moominiin fu nu jëm yóbbu ma ak sëñ gasama mu baax ma ci aljana yàlla na ko aljana barka alxuraan di nuyu soxna yu tedd yi nga xamante ne dañoo fekke ci plateau bi di leen siyaare siyaare bu rafet di nuyu sëñ Maamoor Mbaay yoonu géej gi nga xamante ne moom dama koy wax toujours ni ko xëyee na ko ki guy bisu talaata namm ca géej gi ba ñu naa xatmaat ba weer wu dellu see ci bis ba ak déwén sa lu dooru seeru Bàmba ngir pas-pas ba nga xam ni loolu pas-pas mënu koo weesu tudde sa bopp yoonu géej gi te yoonu géej gi sëñ tubaa da cay feeñal pas pastéefam feeñal ci njàmbaaram sëñ tubaa yoonu géej gi feeñal lu ci sa jom astaxfurlaa feeñal lu ci wilaaya yoonu géej gi du wilaaya jom la ak fit ak njàmbaar maa dem ba fa mu amoon man mii maa dem ba fa mu amoon juróomi at loolu sëñ sëñ <laughs> eh, sëñ si la naan eh, eh, man mii la ko yàlla xamal man mii maa dem ba fa sëñ amoon juróomi at maa moom mii waaye ku fa tax say say tànk rek xam ne sëñ Tuubaa moo bari njàmbaar bari fit bari fulla bari jom moo dis gor du daw te du nëbbu te du laqatu barke alxuraan kon nag lay nuyu ci turu tedd wow barkeel xan di ñaan suñu borom barkeel sa liggéey di nuyu suñ Moustapha kan mu baax mii nga xamante ni moom lantinoor la du tëye diw ñu yàlla guddal sa fan te wéral sa cër te bàyyi la fi di nuyu jaraaf ndooy mi toog di jaraaf yi kër Mbay Fall di taalibe Cheikh Ahmada Tidiane di jàmbaar ci sëñ Touba. fi ne murit bu baax day bëgg tijaan ñi. tijaan bu baax day bëgg murit yi. waaw. ay man raaytuhum faaxu yuxriju laa ilaha illa allah sëñ Touba ndigalam loola. ba tey moo fi ne muy nit ku baax. tàntal na ma ay yoon fa kër Mbay Fall. ma di ko fekk ànd ak sëñ Moustapha Kane. dëgg la sëñ ak sëñ Alla Kane mee toog. dëgg la de di nuyu jàng xasaay yi di toog yëpp di leen siyaare. Mm-hmm. Mm-hmm. barke alxuraan. am naa wax ay bayit mm-hmm. ubbeeku ko waxtaan bi door a tàmbali. incha allahu taala. yaa sayyidan fil maali xal sharwaa'u wa yaa muhibban fuadi dex maswaa'u inni ataytu lu wajji laay saaxara'u أبخي بي نيل ما أرجاه نيل ما أرجاه أحواو دساك يا خلو إبراهيم مولاك خلن دسا ومنا دارك أولاك فاعلم بأنك عندي سردا أبدا وساك ربك في الدنيا وأخراك فدم على صدق والقراءات متلهدا في السر والجهر كي تنمو مسالكا ساف سقيما ناف الأليما خد الخديمة إلى نجاي خطاك قبلا خد بس فضلا فدروا العون فنجاي جالين وايب مبدع دايب نافي مصايب بدل هايب مثل الخيار إلى الخصار بعد النشور بعد البهاي خشنا فادا ونستفادا لسنا بادا هند هاي لو مناخب لو جايب لو خرايب بلنتاي زبيون كلمه دب نسلم تير ناسم كاسد هاي سرح تسير خيش يفار بن تفار بالعرس هاي جسن ينوح لو ينوح زبن يبرن ساي خرحات فقرا محنا أسرى بالجسم جحرا بالافتراي أكرم بربي أسرى بحبي لئن خرم البراي خد بعد يسري من بعد تحري مديم بشري فلان بياي سول أميني محل أميني فوق الأميني الأشعاي مهد لالا عبد الجلالا عبد الجمال على الخياي خد خادمه إشهد وقت المعشى بن خاي وسار فيهم وبارنم وزنانم برد خاي خطاب ليلى خرصب نيلى خرفاغ سيلى من سبخاي خرجاب ميري للخيري وباب ديري أهل سخاي حسن كمالا فخر جالا جسل مدالا بالانتماي نال جرالا نار جمالا بمن تعالى رب سماي أكرم بالي حبيب يالي رح رجال من النساء نعم العسيم نعم الكريم نعم المقيم لرؤساي كافي الخروري مع الخروري مقتل برار بلا نساي بني الديور مع الخيوري باقي سروري للجلساي لوم تلاحي بعضنا جاي هنا سباب في المساي صلاة ستة بمسح ستة تاتي بطمة ساي علي صلى ربنا جلا ففاق كلا في الخياي علي سلم ولم رفقم ولد عسم في الأسخياي على الأتيخ باب تريخي أخي الوسوق كل رداي على الوزير سيف البشير ذا الغدير مد الخضاي عد يا أخي الحياي خير داي من سلبخاي على الخريب ليش الحروب المديب ما تخاي على صعبة زي الجاب يوم الكآبة رداشنا نحمر رجاله nu ma jaalu ni war naa loo wax salaanaay ridaa shamii ajmii yomal xushuwaan yomal nidaay arbaabi xayri arbaabi dayri li baax mayri amee tindaay kun su jàngu laa tibaawu loo tifaawu tarifaay ndax ma kumaatu ndax ma alxumaatu xeddan amaatu bil aktifaay bi ma fawtu وما يفوت بهم نفيت سايف سراي طلحوا لخيري أغداو ديري بشن خيري ما تراي فلت أمري المبخ أمري محل بدري بن تراي إن قالوا ولا يميل لمن يصول مرجعي يا سل جلالي يا متعالي يا خوالي أجب دعائي salli wa sallim alal mukallim mu duur yang simu sunu yaay ala rasuli baabil usul li nuy li sul xaraay sini dawaama wa sini salaama waskur xilaama li wa binaay salli dawaama wa sini salaama waskur xilaama li wa binaay yaa salli raada yaa sal ifaada xali saada لبنتنائي زنقداء زنقداء زنقداء بلا عنائي سفرفائي بلا جفاي تيم شايت بخداي ياسل جودي كل بجودي ومجن جودي فوق الأرضاي حبلي بدادا خل المرادا يا من أفادا بلا كراي حبل بورا خني الغرورا حبدا سرورا لكل راي واشكر خلامي واحمد كلامي بلا ملامي ولم تراي سد لساني نور جناني سيف اماني وشر براي زنصات الديرة لختم ميرا فتف جورا لمن يراي انخسي علي من الضلال وبالحلال خل شراي خني تابا خذ الكتابة وقبل ما تابا وقبل ما تابا وقبل ما تابا يا سسرائي يا خير ربي خير مربي تدخل بعد تناي سلم وسلم على المتمم وكل يوم بننتهاي سلم وسلم على المتمم وكل يوم بننتهاي subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliina walhamdulillaahi rabbil aalamiin barke sëñ Tuubaa bisimilah. barkallah jërëjëf sëñ ak saa xam naa sëñ Mamor dañuy dem directement rek ci sëñ Moustapha Badiane mu daal di tijji tijjil ñu jotaay bi waaye mu mel ni Cheikh Bamba Thioune ma nga fële ci France mi ngi topp jotaay bi euh, nee na mi ngi lay nuyu bu baax di nuyu sëñ jaw ak sëñ Ak Sarr ak euh, Baara nee na di nuyu nag bu baax a baax sëñ Xadim Sarr mi nga xam ni mooy kilifaam ci fànn yëpp ak mboolem waa Ndar gépp euh, kon Cheikh Baara ngi lay nuyu sëñ Sidi Ndiaye moom it maa ngi ci France nee na mi ngi topp jotaay bi mi ngi nuyu sëñ Ak Sarr mi sëñ Diaw ak sëñ Mamour ak waa plateau bi yëpp ñi topp xam naa bari nañ waaye dañuy bàyyi ba ci kanam. Euh, ñu door ndax YouTube beeg Facebook ñëpp ñu ngi yónnee ay message waaye euh, li ñuy tàmbalee si Mamadou euh, sëñ Moustapha xam naa dañ lay bàyyi nga dalal ko ndax moom moo ñu ubbil ci xasida yi balaa Cheikh Bara ñëw ci taalibe gi nu mu nuy ubbilee ci xasaay di sëñ Mamour waaw moom Sëriñ Fallu mm-hmm. nga xam ni moom inspecteur la ci biir émission bi mm-hmm. mi ngi nuy topp noo koy siyaar bu baax di ko nuyu mm-hmm. noonu Sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëñ Cheikh Gaynde Fatma waroon naa toog fii dëgg la waaye am yitte yu ko euh, tënk Touba. Mhm. waaye mi ngi ànd ak ñun jotaay bi jombul bala ñoo pare dina dugg ak sëñ mhm. Abdou Lahat sëñ Cheikh Gaynde Fatma ndax xam nga mhm. ne nag dëgg la dëgg la ñu ngi koy waaj alxames laa jàmm di njabootu soxna may gépp sëñ Modou Mahfous di ziar bu baax a baax soxna assu ak wuy juróom wa nga xamante ne suñu borom euh, tànn na ko mu dëkk jéeg maamam muy soxna baale ak li mu ci jëf ñoom ñëpp ñu leen ziar waaye suñu safaa sëñ Abdou Karim Mbàkke moom Sëriñ Fallu xam nga ni moom jotaay bi du ko du ko du ko du ko du ko wute benn yoon dëgg la moom ñu ci ñaaxaat gis nga mhm. bërki dem bañ fa demee dëgg la ak kàddu yi nga xam ne joxaat na ko mhm. moom it mu ñuy topp ak njabootam gépp nag mhm. ak njabootuk sëñ Tuubaa gépp soxna maam Fatim sëñ Fall sëñ sax xam naa ziaris dëgg-dëgg sax ci kanam dina ñëw ndax dinañ leen jot léegi ci ay téléphone waaye sëñ Cheikh Gueye inspecteur des impôts sëñ Moustapha gis nga moonu waajal parce que dana tey sama kër ngeen di ndogu si ma defar leen ndogu ngeen doog a dem ca plateau ba moom nag dafa takkook yoonu murit ndax doy na sëkk doomi sëñ Tuubaa nga jaral ko mu jugook tànkam ñëw di la gane si ay ati at muy Cheikh Mourtada di ko ziyaareel sëñ Maam Moor mi nga xam ne sëñ Moustapha tudd na ko léegi buñ ko tuddee rek tudd na mbooleem waa impôt yi nga xamante ne ña fa waaye tam ñuy dund sëñ Tuubaa ànd kook moom sëñ Akassa ñu ngi lay ziyaar ba ziyaaraat Cheikh Baara ak sëñ Jaw sëñ Moustapha nii sëñ Moustapha kenn waxee mënoon na laa dalal ndax yow li la ñëpp di xaare rek du ma téye temps bi mu yàgg euh, dañ lay bàyyi rek tey lan nga indil murit yi loo xam ne dina ko mën a nàmpataloo waaye tamit euh, dunde ko koor koor gi nga xamante ne euh, sëñ Akassa junj na ko sànq fekk fa fépp ful ful yi julleem nga wéete wéet amut muuru waaye lu ne mu daj ko ah, juróomi at maa yomb kenn waxatul sàmbaaki dem ba bamba ñu dem ba xéewal yépp tey frigidaire yi fees lépp fees lépp di jariñu te xasida yi moo téye réew mi ana tey lan nga nu indil dëgg-dëgg sëriñ Moustapha Badiane sëñ bi léegi dama xaw a am lu mu xaw a faay tuuti ndax maa ngi ànd ak sëñ Moustapha Seck waa di kenn ci ñun ñu daaw di ànd di liggéeyal sëriñ bi ci daayratul mubaaraka di yëkkateendoo xasida yi maa ngi ànd ak it sëñ Yoro jàlloo ànd sama ñaari jarbaat sëñ Ibrahima Fall ak sëñ Abdullahi euh, Fay ñu koy wax Papa Diagne ndax sama waajur bu góor sëñ Abdullahi moom lañ ko tudde euh, di it jotal sunu nuyoo nga jot di ko teg ci sa loxo ngir jotalal ñu ko sëñ Mbàkke yu Fay waaw di ko ñaanal mu yàgg fi lool ndax sagub murit yi la waaw yal na fi yàgg lool te wér waaw sagub murit yi la waaw comme moom képp murit bu nekk ndakaaru war na di ko ñaanal fu mu toll eh, xasida yi nag day jaamu yàlla bu wér jaamu yàlla it gu nga xamante ni lu sunu borom bi nangu la ba noppi damay dégg ci Cheikh Abdoulaye Khadim Sarr muy wax ni lépp lu jullit soxla ci àddina alaaxira ak barsàq sëriñ Tuubaa xam na ko ñaan na ko sunu borom defal na ko def nag ci biir xasidaam yi lépp lu jullit war a muslu ci àddina alaaxira ak barsàq sëriñ Tuubaa xam na ko muslu na ko sunu borom mucc googu tab nag ci biir xasidaam yi kon xasida yi lépp ngi ci xasida yi nag lu ñu wara a waggar la xasida yi dafa laaj ay xorma yu ñu war a jox xasida yi moo di soo koy jàng soo ko tàmbalee dara waru ko dog lu dul nga noppi nga jeexal nga matal xasida yi sopp nañu bala koy jàng nga jiital alquran feeg yaa ngi jiital alquran di jàng xasida borom tiwaay ci gën xam doole xasida yi xasida soo koy jàng jublu penku sol lu jot te yiw te it teewlu ko nag ci njàngin bi ndax ëpp yeesut lépp lu ci war sëriñ bi def na ko ba mu mat xasida yi loolu it lu ñu war a xam la ñetti position la xasida yi nangu moo di nga gàpparu comme sooy julli soo koy jàng walla nga ferankulaay wala nga taxaw lu dul na nga am gànt gu wér ba mënoo banque say tànk foofu moom loolu kenn tegu ko kenn ndax laa yukallifullaahu nafsan illaa wus'ahaa ku leen di jàng waroo kaf xasida yi suñ koy jàng di koy yëkkati tàccu bokku ci waaw da nga koy jàng it ni ko sëriñ bi binde dafa am bis sëñ Abdou Lahad yónni sëñ Mbàkke faa jama jox ko kaset yónni ko ci benn jàngkatu xasida daanaka dama bëgg nga jàngal jës bu mu jàng jës bu yóbbu ko sëñ laa déglu ko joxaat ko kaset mu yówati mu ni ko demal nga ni diw dama jàngal jës bu mu jàngaatal ko jës bu mu yóbbu ko mu def ko ñetti yoon kon bu sëñ Mbàkke faa jama di wax loolu maa ngi toog yal na suñu borom bi yokk leeram mu ni man damaa déglu xasida gi waaye dama ci déggul yi ci bokkul dama ci dégg yu ci bokkul xanaa loolu la ko sëñ Abdou Lahad bëgg a wax bu mu demee ba xamal ko ki ci gàttal dugalu ci yu ci bokkul yi ñu ciy dugal rek fartaal di ci dugal jànkati jës bu ñu leen di aw sëñ Abdou Lahad daa di sant nag daa ne sëñ Mbàkke Fajama nag santal jànkat boobu daan ko mi ngi koy soog a jàngal jës bi kon xasida yi ëpp nu yeesuñu lépp lu ci war sëñ bi matal nag ñun lu ñu war rek moo di jàng nañu xam ni waxu mag la te waxu mag dañ ko war a wagg dañ ko war a xormal lépp lu sëriñ bi am waxuma ni ci xasida yi la ko ame de waaye ci xasida yi la ko rotale te it amul jëf ju gën a màgg xasida yi wajaal xurufi fawqa kulli amali salluxa yaa man lii yaquud amali kon nga xamante ni amul jëf joo xalaat bu nga xamante ni jëf jooju ko ko jëf dañ ceeg suñu ngërëmal borom bu féete kaw xasida borom tuubaay amul te it nag mooy gànjar bu sëriñ Tuubaa di wane nag di takk yomal xiyaam ëllëg moom xasida yi karamati xat yadi la wax fi xidmatil mu ayyadi wa kaana lii bil afyadi allahu mulil karami kon nga xamante ni xasida yi ñooy gànjaru sëriñ bi te ñaan yu nangu la ba noppi soo jëlee xasida bu ñuy wax tey siru asir juróom-ñaari abyaat yu jëkk yi sëñ bi bu mu bind suñ borom da koy xëyu su ko woy mu ni ko la béyk mu ni ko ahmadu loolu nga bind nangu naa ko waaye lu ko tàmbalee juróom-ñaari bay ab yaat yi ba bu bay xasida gi di jeex balay sëñ bi di bind suñ borom da koy ahmadu mu ni ko la béyk mu ni ko loolu ngay bind nangu naa ko kon ñaan gu nangu la ci xasida yi xasida yi lu wax léegi jaamu yàlla bu wér cëng la ndax yéegukaay la jëlal xasida bu mel ne jaali batul maraaxi bi buñ koy soo koy su maa ngi soogaa xam mag ñi lu ñu daan di wax ni xale yi nañu moytu xasida gi ndax turu yàlla al ismullahi al azim al bi nga xam moom la ñëpp di wër mu ngi ci biir jaal wattu maraaxib ndax am na ci bayit bu nga xam dafa dab képp tur woowi ba nag soo dem bi ci biir na mu daggat ko te tur woowu di ñu wax ni ñu ko war a xam ci àddina lim la ku ko wax jaar wax jaar ci tur wi te amoo ndigal wax ko suñu borom leb say fan ndax màgg gu tur gi màgg ña àgg ci njombatal nguur gi yàlla gi suñ koy wir di fukk ak ñaar lañ ci war a yem fukk ñaar lañ ci war a yem ndax màgg gu màgg mi ngi ci biir xasida gi kon nga xamante ne xasida yi jaamu yàlla gu wér cëng la xasida yéegukaay bu wér ceng la bu eh, Cheikh Abdou Khader Ndiaye yal na suñ borom bi yokk leeram maa ngi nuyu au passage les les compagnons de Yasi daf ma mos a wax daal ma nan nga defa xasida borom Touba yi ne ko ah maa ngi koy jàng mu ne ko di ko seetantal mu wax ma lool ndax la ci sëriñ bi lëm lu mu waxul yëpp mu ngi ko lëm ci biir xasida yi kon nag loolu day firndeel ni xasida yi seen dayu doomu aadama lott na ci xam ka moom xasida cheikhul qadim yi am xam-xam xam yoonu tëgginu way du tax nit ki xam luy xasida borom Tuuba ndax mën nga xam maîtriser naxu xam xeetu nu way yépp xeetu baxru yépp nga xam ko maîtriser ko yow bu fekkee ni foofu la sax ma xam yam umpale lu bari ci xasida Cheikhul Xadim ndax da cee am xasida yoo xamante ni àlluwal maxfuus la ko sëriñ bi jële ki nga xamante ni sa xam-xam ngi yem ci àlluwal maxfuus umpale lu bari ci xasida yi ndax am na xasida yi nga xam ci xalima la ko jële lu jiitu muy bind ci àlluwa xamante ni sa xam-xam ci xalima ba la yem umpale lu bari ci xasida yi ndax xasi am na xasida yoo xam ne sëñ bi mu ko jële ci ummul kitaab ku nga xam ne sa xam-xam ci umil kitaab la yam umpale lu bari ci xasida yi ndax am na xasida yoo xam ne relation directe la diggante suñu borom ak sëriñ bi kenn xaju te kenn dugg ci te kenn waaw moo tax xasida yi luñ ci mën a wax lu mu rëy rëy rëy xamal ni duñ la jox puso daan demal duy géej soo ci géej da ngay roob puso bi rocc amaana sax mu ba soo ñëwee bala ngay ñëw ak si mu loo mënti wax lu mu rëy rëy ci xasida yi xamal ni loolu lay nuróom waaw moo tax xasida kenn mënu xam lu ñu doon dafa am teen bu suñ borom bi sàkk tudde ka aynul anwaar mu ngi ko wërale ay bi di allahu nuuru samawati wal ardi masalu nuurihi ka mishkaatin fiha misbaahnul misbaah fi zujaajatin zujaajatu ka annaha kawkabun duriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala garbiya yakaadu zaytuha yudii'u walaw lam tamsashu naarun nuurun ala nuur yahdi llahu li nuurihi man yashaa wa yadribu llahu amsaalu naas wallahu bi kulli shay'in alim leeru yàlla yi day ciy wañax comme kàddir gu guy bax noonu la ciy leeru yàlla yi di def koroog bu yonent yi jeexee ca suñu borom bi tëj teen googu mu ngi ko ibbee bu xasida Sëriñ Tuubaa yi xew tàmbalee xew ca la suñu borom bi ibbiwaat teen bi ñooñu xasida boo ci gis su tëddee di nelaw ruuxam su génnee ci yàpp yaram foofu lay dem di naqu loo soo déggee ñuy wax ni jànkatu xasida yi maa xam moo xam ñi koy yëkkati moo xam ñu koy durus moo xam ñu koy yor di ko xormaal foofee wóllëre bu ñuy am ak yonent yi foofu la ñuy tasi ruux yonent yi ndax ruuxu yonent fu ñu na nekk ci barsàqul mooyu noonu du ñuy ñaan suñu borom ndax nam gu ñuy nam lañ doon dund ci teen googee suñu borom may leen ñu fay ñëw di fa wàcc si ñu fay dajeeg ruuxu taalibe yi loolu moo waral it wóllëre gay am ci diggante taalibe Sëñ Tuubaa ak ak ak ak yonent yi alayhim salaatullahi wa salaamuhu am na ci pays yàlla yu nga xamante ni ku du bokkul ci ëllu xasaay di du fa xand te bokk na ci pays yi gën a sore yi yi gën a màgg yi kon jànkatu xasida dooleem kenn xamu ko te la ko waram moo di xasida ndax ku tey di ko waxoon nañ sikkuun sa mbind sa mbind loxo ñoom a gën gaaw fa yàlla kon xasida yi lu ñu doom duñ leen xam mukk foo ci yem rek xamal ni lu ma waxoon léegi du la jox pour sa daan demal duy ci géej loolu rek nga ci mën a xam waaw soo ci gisee xasida yi yéeme gu ñu yéeme te it yàlla daf ñu defal sutura ñun doomu aadama ndax ku mën a bind xasida gu mu ci mënti doon mën nga ci am lu la ci mën a mokkal xasida gu ci mënti doon mën nga ko mokkal di bind soo amee xaalis di ci wecceeku lu la ci soo malaaka yi xasida gu ci nekk benn lañ ci am te ku ko gis dootoo ko gisati ba bu ñoo wal buftu bi ndax seen lim kenn xamut nu mu day te ku ci yore xasida soo koy jàng soo ko doon dégg da nga koy dégg mu jëfant xasida gi ndax bañ xasida gi teel a jeex ci loxom ndax fonk guñ ko fonk ak xam la ca nekk kon ñun suñu yàlla defalee teraanga jooju mu tàbbi ci walaqad karam naa bani aadama wa xamal naam fi l barri wal baxri wa razaq naam min atayibat fadal naam ala kathirin man xalaq naa tafdilan nga xam ne loolu dafa tàbbi ci teraanga jooju suñu borom bi defal doomu aadama du ñu war xam lu ñu yor lan la ma wéyal de sa kiwee rek nga wax ñu pour su sëñ bi <laughs> daf ci am sëñ bu sëñ bu tedd bis mu toog njaareem di waxtaan benn tuut tànk romb ko bu toll ci war juróom-ñaari at ak yu ni mel juróom-ñetti at sëñ bi ni tekk waxtaan bi di xool tuut tànk bi ba tuut tànk bi dem sëñ mel lu koy yokkeel di ko xool ni daa di laaj mag ñi ana ko xam dara ci tuut tànk bi am ku ne ah man de xam naa daal ana foo xam xam mun ko ci kër sëñ Issa Diène mu ne ko da koo jur wala dañ ko koo juróon mun mu ne mag ñi ku ko gën bar tànk na ko wàññi mu dellu si ñu daw wa am ko dem indiwaat tout tànk bi sëñ bi di ko xool di ko xool daan bismillah mën na wéyal yoonam am bu def yéem na leen de mag ñu ni teg mu ni leen bu muy romb tout tànk boobu sëñ bi neen mi gis la waawul hamd ñoo ngi ko samp ci mbagg mbaggu ndey jooram mu wax mu ne nag tout tànk bii lan la fi mën a defal sunu borom ba àgg ci daraja jooju ba ñu jël li waawul hamd di ko samp ci mbagg ndey jooram waaye bu mu ñëwee xasida yi ma dee dal nuy dégg ngeen koy jàng ci sama ëtt bi mu koy gimmintiku moo ko yóbbu ci daraja jooju waa léegi ki ko mën di koy jàng te jox ko xorma ga ci war fu muy toll ci digganteem ak boroomam jàngkatu xasida yi ku dul Sëriñ Tuubaa àttan looleen ndax fa ñu toll seen borom sëñ jëwriñ ma dikke sekk yal na suñu borom bi yokk leeram waaw ci noonu lañuy ñuy ziyaar it suñu jëwriñ bi fi nekk di sëñ Umar Thiam mu ngi ñuy topp it di ko jox wàccuwaay moom la Serigne Abdoulaye saar teg sunu kanam ku baax te dëggu waaw te am yërmande it nag sëñ ma dikkee Seck daf ñuy nettali daani bu ñu nekkee tout tànk su tàkkusaan jotee du ñuy ñëw fekk way juróom topp ñu daawoon di jàng xasida yi daaju daajiwuñu ndax dégguñu dara ndax boobu tam ay juróom-ñetti at ak ndax lu ko waraloon moo di mbiskit bu mu leen di bégale su nu ñëwee jàng nañ ci biir njàng mi sax léeg-léeg ñu xeex ci ndax kii yooxu jëm ni kii yooxu jëm ni ba bis sëñ Abdoulahi Dieng ñëw sëñ Abdoulahi Dieng doomu Cheikh Sidi Ahmed la mu Oula Deyman ma doon sëriñ Cheikh Abdoulaye Dieye bi daan di wax allahu wahidun yal na suñ borom bi yokk leeram mu ñëw taxaw góor gi bëgg wàcc pliant bi pour wax ko mu dugg si mu ko déet toogal fa nga toog taxaw di déglu tout tànk yi rek léeg-léeg mu xool asamaan si léeg-léeg mu xool wàcce waat bëtam moom sëñ ma sek wooy juru euh, sëñ euh, Madické Seck xam ni taxawaay bi yàgg na ndax kii mag la mu ne waaw tout tànk yi ñaan leen ñaan leen ñu kii mu daal leen jox mbiskit tout tànk yi dem mu ñëw daal ni ko xam nga lu tax dugguma xale yii doon waxtaan ci di di jéemantu ci xasida borom Tuubaa yi malaaka yi duñ fi bare woon lool di barkeelu ci seen jëmm bare ba xajatuñ fi ba tegloo soo gisee ma doon xool dama doon xool ba sum bët sax ci asamaan waaye xaw ma fu ñu yem loolu ma xam ni su ma doon dox ci kaw ay malaaka laa doon jógi loolu moo tax ma taxaw waa léegi nag ñi ko mën di ko jàng te jox ko ma bu ci war fu ñu toll ci seen borom kenn xamu ko kenn xamu ko ku tedd ki wax na ni sama xasida yii ku ñu xas ba fal duma la folli mukk waaye ku ñu xas ba folli duma la fal bu mukk kon xasida yéeme nañu yéeme bu nga xamante ni ah doy na waar ah. moo am ci ay xasida bii sëñ bi doon jàng léegi sëñ akasa muy mawaahibu naafia fi mada shafia du ñuy wax ni bayit bi sunu xol xasida gi it jage na xol ba ndax soo jëlee xat fàkk kabla xat basa fadla fa duru wala wa nafu jaayi ba bu ci jël nga jël xaraf bu ci jëkk xat fàkk kabla xaaf moo jëkk soo ko àddee téeméer la jàppal téeméer bi xat basa fadla xaaf moo ci jëkk muy téeméer mu doon ñaari téeméer fa duru wala faa gi quatre la mu doon deux wan nafu jaay waaw moo ci topp moo ci jëkk mu doon 286 bindal mawaahib nafi soo ko àddadee 286 la lay jox te bayit boobu di ñuy wax ni ku nekk ci xat-xat isaaba sa tur nga koy wir du bayit boobu suñ borom bi ji jéng yi nga xamante ne moo am ci say mbir waaw xoolal loolu ci xasida yi sëñ Xaadim Mbàkke yal na suñ borom bi yokk leeram conférencier dëkkoon Mermoz wa alaaji xaadim lañ ko daan di wax daf ma fekk juma mer moo ñoo fa daan di julleendoo ma yore mawaahibu di ko jàng moo pare tekk mu jël ko jàng ba noppi daal ni ma su guddee na nga ñëw kër ga xam nga man ko waa bor basket mu ni ma na nga fa ñëw ma ñëw fa mu ni ma xam nga xasida man ko sëñ man de xaw ma dama jàng rek mu ni ma saa yokk jàngatee ba inni aqulu wala yamilu li ma yasul maal jiraayi man ko waaw mu ni ma dangay taxaw fas fa sa soxla mënu ma lu ci topp ma ne ko yaa zal jalaali yaa mutaali yaa xayra waali ajib duaa yi mu ni ma nga def ko li mu kun fekku mooy 236 soo yéggalee xasida gi mu ni day mel nga fekk sëriñ bi toog nga jëw daal ni que lii mooy sama soxla mu nang ko te faj ko waaw wallaahi waaw kon xasida yi kenn xamul lu ci nekk soo gisee gëstu bu ñu ciy gëstu ñoo ngi ciy sant bu baax Cheikh Abdoulaye Khadim Sarr ndax duñ ko daaw dégg muy wax ni lanwaar ak lasraar ak barke yi ci xasida yi sama xel daw na nag asraar mooy secret kon xasida yi am na ay secret yu ci man na naa daw gëstu ji loolee far tase nag ay mag yu xamante ni baaxe na ñu lu bari ci xasida yi soo jëlee xasida bu ma doon junj léegi jaalibatu maraaxib du ñuy wax ni kër gu mu fanaan ku fa faatu kenn la isaab waxuñu ko ko jàng nit xasida ga nekk fa am ku fa faatu ci biir kër ga kooku kenn ko xisaab ci dara jee xasida googu nga jël jaali batum rak téye ko nii sa jiba wala sa loxo di dox romb ay armeelu yéeféer soo ko jubee ñeent fukki jéego mbugal bu ñu leen doon mbugal suñu borom da kay arrêté day digal malaaka yi kenn dootu leen mbugal ba nga weesu ko ñeent fukki jéego soo fa dëkkee kenn dootu leen mbugal ti soo rombee armeelu lu jullit fekk fa ab jullit bu nga xamante ni xëy na saay-saay la woon ba ñu koy mbugal ci biir bàmmeel nga romb la ñu wax ba at bi dellu si doon kenn doot ko laalti waaw moom jàll maraaxib ku koy jàng ku ne su góor yàlla yi wóor na man man kenn du la raw ma ñeneen fu ñu jaar waaye wóor na man kenn du la raw moom waaw moom ndax mooy bijjikaayu xemmimteef yi te xemmimteefu sëñ bi doon dara lu dul yàlla yonent bi ak alxuraan ku koy jàng ku ne soxla yedd bàyyi ko danu mujj jub xoj su jubul woon ndax xasida yi ñoo raw cheikhul murabbi ndax cheikhul murabbi ngir mu jëriñ la dalay lay digal nga def mu tere la nga bàyyi ndax nitu yàlla boo gis dafa yore ñetti cër bii moo ko liggéey ba moom ko suñ borom bi jagleel ko ko lu ko soob mu def ko ci ñooñu ku ko yor nag lu ci ëpp sa njaboot nga koy dencal bii suñ borom dala koo jox daan ni seetal ku ko yeeyoo nga jox ko sañoo ko jox ku la soob bii suñ borom daf ma wax téye daf koy wax téyel ma ko ba ma gis ka koy yeeyoo man la joxal mag ko waaye xasida seexul seexul xadim yi moom dil durus rek muy def la muy tabal ci yow te du la digal du tere ba nga yeewu suba yëg la nga doon ndax neex na xam sa bopp de te man arafa nafsahu arafa rabbahu ndax xam boppam rek xam boroomam waaw te xasida foofu la ñuy yóbbu doomu aadama ah waaw <laughs> dama defoon sax def ki allah am gi mu am solo. Mhm. kenn du la bëgg a dog. <laughs> dëgg la waaye boo boo boo daaneel rek ñu dem ci Cheikh Bara. waaw kon ñu daaneel foofu. Mhm, mhm. ñu dem ci sëriñ bi. mu mu ñu tuuti. ñu dellusiwaat jërëjëf euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha ci xaside yi ni nga tàmbalee ni ñu ko waxee rek euh, lu baax a mel noonu lu neex it moo mel noonu boo boo ko dee dégg doo bëgg mukk mu mu ñu taxaw xam naa ni ñuy seetaan sax dina am ñoo xam ne dinañ ni kii fi mu ko daggee. nag waaye nag noonu la baax fi mu toll bu Cheikh Bara ñëwee. dana toll foo xamante ni da nga ni bëri si waroon arrêté mbirum sëñ bi moo mel noonu waaye kon ñu mën a daw dem rek sëñ Maam Mor directement ci Cheikh Bara mi nga xam ni dikkal ñu ci ak taalibe ndax da ngay mhm. jébbalu ba noppi ñu doog laa ko taalibe dëgg la xam naa ni côté boobu dina ci dugg waaye sëñ Moustapha mhm. euh, ci barkeb xasaay yi mhm. suñu ak saa jàng ak barkeb jaalibatu muraqib ak suñu wéy jur wàcc liggéey muy soxna Ami Ñas di wéy sëñ Xaadim Jaañ te biig lañ dem. di ñaan na na jóg ci tawat ji. waxtu wi biig ñu ngi koy ñaan. ndekete booba ñaan yooyu. moo koy gunge. tey nag lay xam kuy Sëñ Tuubaa. yóbbu ko tey jeexoon tàkk ci Seex Moustapha. jeexoon tàkk ci Daaru Xudduus xam naa fa bi ñu affiché lu ñu ko rek. sëñ daam muy soxna ami. ñas euh, di sunu wéyjur mm-hmm. wéyjur suñu xaadim jaañ mm-hmm. àllarba ak jàmm ndeysaan dañ koy mm-hmm. ñaanal fii ci parcelle unité 21 di ci ziar waa jàmm kuréelu salaam bi nga xamante ne sëñ euh, Pape mbay étincelle moo ko jiite ñoom sëñ Ibrahima Faye gunge ko gungeen woo xam ne tey lay xam nag euh, lan mooy sëñ bi waaye ku deexoon ci sëñ Tuubaa weer wi mu dem nag suñu safaa xel ah. dal na xel dal na xel dal ah. na jërëjëf sëñ Mamoor comme noonu ñu ko waxee rek mu ngi noonu soxna saa ngi noonu fépp fu waay mën a nekk ci àddina bi rek te jàkkaarloog moom ñu ngi lay ñaan nga jàng fatiha jàng fukki xalaas ak benn falaxi nasi ayatul kursi salaatu ala nabi def ko addi suñ tubaa euh, yàlla suñ boroom doole ay xéwalam doole ay leeram fa mu nekk ci barsàq ak mboolem jullit boo xam ne fekk na fa kon sëñ Baara euh, yaa ñuy ñëwal tey ci lan moo dig taalibe Cheikh Baara bisimilah. xam naa di jégglu sax mhm. seetaankat yi mhm. ndax man dem naa ba su ma mënoon a la bàyyil mu dem rek dëgg la dëgg la <laughs> dana ko def mhm. ngir ne njariñ moom doomu aadama yàlla du ko bind mu soxla ko rawatina njariñ lu la jege mooy daanaka ñu fi toog xasida yi muy wax da nga koy mokkal di ko jàng bis bu nekk ndekete loolu mu wax ci xat fàq kablaa rek da ngay jàng bis bu nekk te ndeke yoo maanaam li ngay wër lépp yaa ngi koy jéggi di jàll rek te doo ko xam mm-hmm. yu mel noonu bu ñu la koy teqantalal nag daanaka doo sax bëgg a noyyi ndax euh, doomu aadama la yàlla binde mu bëgg njariñ mm-hmm. euh, sëriñ Mamor nag comme ni ko waxee nga ne ñu waxtaan ci ak taalibe mm-hmm. ak taalibe nag dafa nekk loo xam ne lu soxal ahlu tasawuf la rawatina murid yi ñu di ko wax saa su nekk waaye day jar léeg-léeg ñu indiwaat ko ba nit ki di ko gën a xam ngir di gën a am ak ñemeñ ci boppam di gën a am ak ñemeñ ci lam yi sàkku muy taalibe ak di gën a am ñemeñ ci digganteem ak boroomam mi mu koy sàkku mm-hmm. ak taalibe nag fu nu ko waxee dañ koy njëkk a tàmbalee ci yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo bind ñun ñëpp ak amam moo tax ak taalibe mën a am ndax ab taaliba moom mook murit ak euh, iraadatu daanaka benn la lépp rek ak soxlay topp wala ak bëgg goo xam ne nit ki moo namm dara comme ni yàlla namme woon defar na maa amruhu isaa araada say an an yaqulu lahu kun fa yakun yàlla sax dafa toog ba yàgg mu nam ma mm-hmm. amal daal di amal mm-hmm. bi mu amalee doomu aadama ci boppam la suñ boroom bind ci natiiram la def ñaari mbir yoo xam ne benn bi bakkan bee ko moom te saa yu ko waree jël da koy jël benn bi ruuxu gee ko moom saa yu ko waree jël da koy jël bakkan bi li mu moom bokkut ak lekk ak naan ak nelaw ak ni mel waaye lu mel ne buñ ñu ko doon natt ci jaxasoo ak jigéen doomu aadama bu amee 18 ans rek jàpp 19 ans ba 20 ans même bu xamut bu amut bu amut soxna amut lu ko jege sax xelam ci boppam day nekk ci ab sëy bu dee bu góor bi ak bu jigéen bi buñ ko tëjoon ci kaso yi nga xam ne gisul jigéen xamut luy jigéen sax su amee fukki at ak juróom-ñett xelam ci boppam moom mooy xalam di jëm ci ab jaxasoo ba bu amul fu ko defee bu tëddee sax di gént di ko def da ngay gis sax ci téere sariya ci téere fiq yi ñu ne bu géntee sëy mooy bu masooree kon loolu lu naturel la lu doomu aadama euh, bindoo ni ki noonu ak topp suñ borom ak topp maanaam jëmmi topp maanaam di yëg yàlla di ko jéem a wër ak di ko jéem a topp doomu aadama tamit noonu la ko yàlla binde noonu nga xam ne boo màggee ba am fukki at ak juróom-ñett ba sam xel tàmbalee xàmmee ak di ràññee da ngay daal tàmbali di làmbut di gis jant bi di fenk ka soo di gis nawet yi di ñëw ñax yi sax nit ñi di dee ñii di juddu da nga xalaat lii lu mu doon ak asamaan si lu fi nekk suuf si lu fi nekk man fu lu ma fi indi ak man fu ma jëm. ak ñi dee ñu dem ak ñi judd fu ñu jóge yooyu moom faaw day di sa bopp. bi loolu amee nag doomu aadama ci boppam daal di am tabax ak tabax ak taalibe ci xolam. maanaam jéem a wër yàlla daal di koy leer na ko ne moom indiwu fi boppam te wóor na ko ne itam bàyyiwu fi boppam te wóor na ko ne day dem loolu moom mhm. yonent jàngalu ko nit wàlli yu jàngalu ko nit moo koy xamal boppam comme ni xamalee boppam sëy mhm. ni nga xamee ne liir bu juddoo ni ñu koy xamale ko boo saxee ween wi amul kenn ku ko mën a jàngal na ko dangay ngay dëgg loolu da koo ëndaale mhm. bu tollee ci ati jaamu tamit noonu la ko xolam di waxee ne ko jaamul léegi nag yonent yi dañoo ñëw ràññeele waaye doomu aadama moom jaamu ci biir xol bi la nekk yàllaa ko ko bindaale doomu aadama daal di ñëw bëgg a def taalibe bëgg a def taalibe boppam mooy bëgg am am na ci yàlla waaye nag xamul fu muy jaar ndax amul yonant mm-hmm. mu daal di xool jant bi jant ba rëy tàng lool te kawe mu ne kon lee mooy yàlla nga gis ñenn ci doomu aadama yi jaamu nañ jant bi lu mel ne boo demoon ci Égypte pharaonique da ngay fekk ku ñuy wax Akhenaton mm-hmm. formé woon na moom ab lu xaw mel ne diine joo xam ne moom jant bi lañ doon jaamu ngir mm-hmm. kawewaay mm-hmm. waaye da ngay gis buñ ca tàmbalee rek suñ borom daal di yabal yonant daal di dajji loola ne man bu ma kenn na ngeen ma wër waaye bu ma kenn wër ci ab jant ñu ne kon du jant bi ñu daan ne kon nan dem ci weer wi tàmbali ci a kawkaban gis nga ci Ibrahima a sams baasixan fala yooyu yëpp doomu aadama wër na ci yàlla muy wër ko ci jant bi yàlla na ko déet mu wër ko ci weer wi yàlla na ko déet mu wër ko ci biddi wi yàlla na ko déet mu lal ne kon nan dem ci ndox mi daal di nga gis ay doomu yoo xam ne ndox mooy seen yàlla ko jaamu yàlla ne déedéet bu ma kenn wër leen ma waaye bu leen ma wër ci ndox ñu ne kon a ah, nan ko wër kon ci sawara ndax sawara kat am nay miracle yi boppam mhm. waaye suñ borom buñ ko jaamoo tuuti ci sawara wi nga gis mu dajj ko mhm. te yooyu yëpp jant mooy ñëw dajji ba ci Suleymaan ak yonent yooyu yëpp kenn ku nekk danga fekk sa jamono di jaamu dara loo xam ne dañ koo jàppe yàlla ngay ñëw ne yàlla kat nanguwul ngeen wër ko fii dama ne même même ki nga fekk muy jaamu nag wi danaan la nag wi du yàlla xam naa ko waaye dama ci jaare pour am ci yàlla nga xam ne tawasul la ko maanaam maanaam wasiila la ko def ci digganteem ak yàlla yàlla nag lànk ne wër ma waaye nag dàkk wëru nga jaar ci nag pour wër ma ñi daal di ne ma nga gis ñeneen ñoo xam ne ñoom ngelaw la ñuy yàlla na déedéet mhm. bi doomu aadama làmbatoo yàlla ci gàttal fépp fu yaakaar ne rek mën na faa daj yàlla bu demee suñ borom ci boppam gàntalal ko mu ne ko nan bàyyi yi nga xam ne yàllaa ko bind mhm. te defaral suñ bopp nag loo xam ne moom yoonu yàlla nekku ci mhm. daal di daaj ñenn ñi daal defar eh, ay ay bant yett koo yett yett ba mu nuru dara <laughs> ñenn ñi jël ciment wala ban defar ko ba mu nuru dara nga xam ne lii moom maanaam amul ruu yàlla defaru ko ñun ñoo ko suñu bopp ñu koy def loola la ñuy wax xërëm di ko jaamu suñ boroom gën a bañ loola daan na leen bu leen ma wër ci ab xërëm kon doomu aadama daal taxaw ne yàjj nag ndax bëgg na yàlla bëgg na bëgg maanaam ni ma ko waxee ñaari yëg-yëgam ya benn bi moom mi ngi koy am ci kaw suuf ndax soxna la mi ngi ak ba beneen yëg-yëg bi nga xam ne mënu koo muñaale du ko tëddaale nelaw mukk mm-hmm. fan lay jaar ba am ko suñ borom nag daal di yabal ab yonant daan ne in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni maanaam nga xam ne dafa am lu ñëw mën ko ñëw nit la waaye dafa ñëw daal di taxaw ne bu ngeen bëggee dem ca yàlla nag nii ngeen di def mooy topp ànd ak man yàlla daal di ne atti'u laaha wa atti'u rasula waaye dama koy dama koy leeral toujours ma tooñ ustaas na ko atti'u laaha wa atti'u waajee mooy nit ñëpp a ngi taxaw jaxle mu ne at atteon laaxa na ngeen topp na ngeen ñëw ci yàlla mhm. waaye wa atteon waajee nag topp leen waajee ñu ne gees mhm. loola fekkuñu ko muy nag fekkuñu ko muy xar fekkuñu ko muy bëy fekkuñu ko muy sawara fekkuñu ko muy jant mhm. waaye dañ koo fekk muy doomu aadama dëgg la dëgg la kon benn joxañ la yàlla ma sa joxañ dara ne ku ma bëgg ñëw ci man toppal lii te loola nag nit la nit la wax nga dëgg de te ne nit kat gëneewu ko fa nag yàlla yàllay tere ndax bu dee nag rek nag bu dul woon yàlla nag du am ndax ci créatif yi suñ boroom la suñ borom toog ba mu neex ko mu xalaat ni mu bëgg a defee nag mu def ko indi ko ci àdduna defe ko noonu ci jant defe ci ngelaw waaye nam meelu suñ borom ci boppam la yàlla joxañe doomu aadama ne lii laa bëgg ngeen di ko topp su ngeen bëggee am ci man dara nun koy toppee inna si na yu bàyyi yoon ak daal di ñëw innamaa yu bàyyi yoon allah yadullahi fawqa aydikum mu ne gaa yi nga xam ne d'accord nañ ci jël seen loxo jox ko loxo jeneen loxo jii ma mm-hmm. joxañ mm-hmm. su ngeen ñaari loxo yooyu buy ñëw loxo bi dem ak loxo bii nangu mm-hmm. nekkatuñu fa yaddullaahi ñaar yëpp loxo yàlla la aw ay di kum daal di koy jam seen ñaari loxo yi bu dajee kenn ku nekk yàlla kii yàlla la représenté yàlla la nuyu dëgg la kon mu mel ni doomu aadama ci boppam suñu borom moo digal doomu aadama muy topp doomu aadama suñ borom moo digal nit mhm. muy topp nit nit du def koo neex mhm. muy topp nit déedéet mhm. suñ borom moo ne soo bëggee ñëw fi man bul ma wër feneen fu dul ci nit nit kooka nag mën nañ koo layee ñu ne kooka rasul la ndaw la kon jiblu ci yonantu moom mën naa nekk waaye jiblu ci lu dul ab yonantu kon ku ko def comme ni ñu koy waxee ci suñ mbokk yeneen yi waaye li koy daj sànni mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ci boppam ba ñu fi jógee saxaaba yi jàng nañ summa ammaatuhu fa aqbarahu su nit deewee dem leen ngeen suul ko aayab alxuraan la te terewul bi yonent bi génnee àdduna tëdd nii laata ñu koy denc ñoom wut ab sëriñ buñ bokk buñ jokk moo leen gënaloon dem denc def jëf jëfe ak alxuraan boobu waaw te al yonent bi daf leen a woon daf ne man maata bi xayril mu bàyyi maata Euh, maytatul jaahiliya ku dee ci lu dul ak jaayantee ngi ci saw loos dee nga deewu kéefër wala deewu ceddo xadis bu wér la ku faatu te fekk ënd maanaam faatu wóole woo jaayante ak jébbal dee nga ci kéefër aaya bee na leen ku faatu suul leen ko xam nga bii da leen a tëkku bii nag da leen a digal kon biñ maanaam tëkkug yonent boobu lañu gën a moytu. Mhm. ci dem jëfe gis ndigal yi ñu daal di jël Abu Bakar. Mhm. teg ko fa yonent bi tege woon def ak moom lañ daan def ak yonent bi mhm. jàppe ko yonent bi. te ne bu fekkee Abu Bakar leer na saxaaba yépp ne Abu Bakar moom du yonent. du dégg jotu ko wahyu. wóor na leen ne itam mësta gis Jibril. wóor na leen ne yàlla nu ko ci ñoom mhm. te bu dee gën gënu leen ndey gënu leen bàyyi ëpp leen alal ëppu leen xam-xam mhm. waaye dañoo nattale ci xam xam-xam bi ñu jàngee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne kii leer gi fi yonent bi bàyyi woon jàpp nañ ne kii dara ëpp ko ci mhm. ñu teg ko fañ tegoon yonent di ko xool bët ñu doon xool yonent te moo ne du yonent dégg nga kon dajjee na ne yonent dong lañ war a jébbulu waaye nag ku nangul yonantu ba ba mm-hmm. ba ba am jikkoy yonantu mën mm-hmm. dañuy jébbalu ci moom abubakar nekk fi te yonent bi nee na al ulama warasatul anbiya mm-hmm. ñi am xam-xam ñi am xam bi bu fi yonent yi ne nii ñoom ñoo fi dikk kon saxaaba ya jébbalu nañ léegi nag ci lislaam da wax ne kon ku jéb ku ku taxaw ne man awma sëriñ war ngaa mën a taxaw nga ne ko jullit ndax bi yonent biy dund amul benn jullit boo mën a jàkkaar lool ne ko koo jaayanteel te du la ko wan amul woon bi yonent bi jógee saxaabatul kiraam nekk fi amul kenn koo xam ne mën nga ko ne koo jaayanteel te du la joxañ aboubacar mhm. te aboubacar moomee moo nekkoon sëriñu kullu mhm. da ngay dégg yonent seydina omar ñu ne ko amirul moominiina mhm. nga xam ne bu ñu tegee abu Aboubacar ñëpp d'accord ci ne moom mooy moom mooy mbir mi mhm. soo ko diingatee paaka ci put dañ lay rey kon li am mooy yàlla kon wax na nit na topp doomu adama te loo xam ci yàlla rek doomu aadama la ko xamal mhm. weer waxtu weeru koor wii doomu aadama julli doomu aadama woor yi doomu aadama kon li ñu bëgg a wax mooy nun murid yi fekkuñu rek sëñ Touba mu neex ñu ñu ne dañuy dañuy jébbalu ci moom déedéet dafa nekk loo xam ne ku ko deful dem sawara ku ko deful mënoo bokk ci diine ji bi fi yonent bi nekk moom lañ ko daan defal bi mu fi jógee saxaaba yi lañ ko daan defal bi fi saxaaba yi jógee taabian yi na yi dem na mag ba lislaam pëccëxoo ba njëbbal googu am ñoo xam ne taxaw nañ nee ñoom dàq ko di ko waxee neneen ak di ko defee neneen wala sax ñu ne bokkut ci diine bokkut ci diine ñenn ñoom ba tey ñu ñu ñu wóor na leen ne yàlla moom ku ci jëm faw nga am aw yoon comme ni ko ni ni ni ni ni ma ko waxee ci gannaaw ñii di ko wër ci ku nekk ñun nag ñu di ko wër ci Seex Ahmadu Bamba kooku ñu ko wër ci Seex Ahmadou Bamba. ci kooku. wër googu nag tekkale wut ne keneen ku ko wërut ci moom maanaam li nga nekk wérul mhm. waaye ñun danoo am am nattale buñ natt ba mu xam ne moom natt bi ñu natt moom amul lu ko féete kaw ci kaw ci ñun amul lu ko féete suuf ci ñun mooy wóor nañu ne ñun yàlla mhm. daf ñoo toppaloo mhm. boppam kooku leer na ci alxuraan leer nañu ne itam yàlla bi mu ñu toppaloo boppam daf ñoo toppaloo yonant kooku leer na ci diggante yonent bi ak saxaaba yi mm-hmm. leer nañu itam ginnaaw sax yonant bi gaa yu baax yi lañu mm-hmm. yàlla ñu yàlla toppalawaat mm-hmm. gaa yu baax yooyu nag maanaam loolu saxaaba yi ñu ko jàngal ci topp gi nangoo topp Aboubacar nangoo topp Omar gaa yu baax yooyu nag ñun ñi am expérience ci sëñ Touba leer nañu ne maanaam yàlla moom boo ko doon wër boo demee ci yonant bi gis nga ko waaye boo fa fekkul yonent bi boo fekkee sañ Touba da ko gis kooku ñi am expérience ci sëñ Tuubaa maanaam loolu dafa nekk euh, maanaam preuve àll bi daf lay leer daf lay leer ne booy wëri yàlla boo jàppee ci sëñ Tuubaa da dem waaw dëgg la de loolu mu indi ak njébbalu ci yoonu murit maanaam mu tax doomu aadama di jébbalu laata sëñ Tuubaa laata yonent bi laata ku ne topp doomu aadama rek dëgg la waaw da koy gis maanaam am na nag euh, ab baat boo xam ne maanaam lu mel ni jibbalu ak jaayante mm-hmm. li ñuy def ñun mm-hmm. nekkut lu ñu créé da ngay dégg ñu naan nit du jébbalu ci nit mm-hmm. nit jébbalu li ñuy def tuddul jébbalu bu dee ci wolof léeg-léeg wolof day indi ab baat dem ba yàq ko jébbal alal lañ koy def nit dafay jaayante da dégg ñu ne daayira Milan bi 27 milliards lañ 27 27 millions lañ yor. waaye doo dégg ñu ne xaalis bi dañ koy dem jaayante kook sëñ Muntaxa déedéet dañ koy jébbal sëñ Muntaxa. <laughs> Mm-hmm. alal ji dañ koy jébbale. alal ji dañ koy jébbale. nit ki nag dafay jaayante. Mm-hmm. ak ki muy jébbalu. Mm-hmm. parce que boo ko seetee dëgg li nga jébbal nit. mënu ko roccewaat di ko yóbbu soo ko defee dañ naan kon jébbale wu te nit day ñëw ci sëriñ toog ne ko jébbalu naa jóg ñibbi. mu na la nuyul ma waa kër ga kon la nga fa bàyyi. la nga fa bàyyi. Mhm. loola mooy loola mooy mooy mooy lii. mooy la nga jébbale mooy mhm. amuur. Mhm. bu dee murid nam mel nam nam. lu mu nam yàlla muridullah al iradatu. googu mooy li créé àdduna suñ borom bi mu toogee moom képp ba bëgg a amal ak cofeel am amuur. moo yeewu ci moom mu bëgg a bind moo tax mu ne inna ma amruhu bi ma sopp bi ma amee amuuru mhm. bind mhm. doomu aadama mhm. bi muy wàcc ci kaw suuf budul woon ak amuuru ndey ak amuru bàyyi di liir di fekk ci suuf kenn ku juddu dee ci bis bi waaw ku juddu rek bis bi nga juddu ngay dee kon kenn du am histoire ci kaw suuf amuur rek moo tax nit ñi des fi man mii ak keneen ak keneen bi nga ne cëpp ci kaw suuf maanaam bi nga ne toqantelu sax man di ci sa biiru yaay sa yaay yëg ne daraa ngeeg moom mm-hmm. su dul woon amuuru bëgg nga toog mm-hmm. mën naa defi pexe nga dem waaye amuura ko téye mu lay bëgg di la téye ci biiram di la bëgg ba wàcc mënoo lekk mënoo naan mënoo def sa bopp dara ci cofeel ci la bàyyi di daw wuti di indi ndey di nàmpal ci cofeel ba nga ne ba nga ne léng taxaw cofeel googu nag dangay dem ba toll ci benn dimension boo xam ne maanaam da koy jël nag xam ne mooy li gën a laxas ko nag pour jox ko suñ borom laxas gi nga laxas jox ko suñ borom nag da ngay taxaw nga ne waa léegi man ana yàlla kon kan laa koy jox mm-hmm. ñu ne ah yàlla fii ne nii wóor nañu ne boo demoon ba ci sëñ Muntaxa moom mm-hmm. dang maanaam moom wóor nañu ne foofa moom yàllaa nga fa nga dem ba yegg nag nga jël cofeel gi nga xam ne maanaam mooy li ëpp doole ci àdduna gën a rëy lépp mm-hmm. muy amour mbëggeel mhm. bay di ko wax te xamuñu ko waaye mbëggeel mooy àdduna bu mbëggeel amul àdduna du am mhm. nga jël mbëggeel googu nag maanaam ron ko ci sëñ Muntaxa jox ko ko mooy mu bàyyi am muy mhm. moo tax yéen nga dégg mu naan soo ma gëmee dama laa war a gënal sa ndey ak sa baay dëgg la foofu mooy amour bu dëgër la la bëgg a wax ne moo fi maye dara nga jël amour googu jox sëriñ bi tamit dëgg ci yow mu téye ko tamit dëgg ci tam tam tam tamit dëgg ci moom mu nangul la mm-hmm. njëbbal gi mooy amul mm-hmm. nga dem saa bu nekk nag ngay def lu koy firndeel lu koy jëmmal mooy di indi addiya di di di doxee di ko ñaanal di def ay comme jàng xasiida mm-hmm. lépp loo xam ne rek jàpp nga ne luy dundal amour la ci sa diggante ak sa sëriñ nga di ko jéem a def loola mooy ak njëbbal loola mooy jaayante loolu mooy cosaanu jaayante léegi nag dinaa ñëwaat ci bi nit ki jébbaloo nag ba ñëw ba mm-hmm. xam ne moom sëñ tubaa ko doy mm-hmm. ñëw na ci moom mm-hmm. jox na ko cofeelam sëñ tubaa nangul ko cofeelam maanaam yan yan tànk nag la ko sëñ tubaa doxloo kooku exemple bi dafay nekk Cheikh Ibra mooy échantillon bi gën a rëy ndax looy wut ci sëñ tubaa man nga koo am ndax sëñ tubaa nit daana waa ko jox ko benn loxo te teewut wàññiwu ko dara da am na ca moom la mu am am na ñu daa toog ak moom sol mbaxana waxu leen sax bu leen ko def waaye nag kuy wut ci sëñ tubaa te bëgg a sakkanle da koy Cheikh Ibra waaw kooku nag maanaam beneen yoon la boo xam ne euh, ñun ñoo ko moomal suñu bopp. dëgg la su ko defee bu kàddu gi ñëwaatee ñu ñu dugg ci. dëgg la incha allah tubaarkalla jërëjëf euh, Cheikh Bara euh, am na solo lool yaakaar naa ni fi nga fi nga daanelee. noonu nga ko waxee rek noonu la deme ndax maam Cheikh Ibrahima Fall moom li mu li mu njëkk a indi. ci kàddu bi mu ko tàmbalee daa doonoon lu yees ci yoon wi. ba ñi ko gisoon dañoo jàpp ni yëfi dof lay def. ñun ma jéggal ci baat bi. ndax xamuñu ko woon muy toog ci suuf wuyoo santam ak yooyu ci bokk yëpp waaye ba mu demee ba dugal ko ci ban xam ni loolu mënu ca damay maye dara léegi ku dem bay def sans contrôle loolu ab dof lan lay jàppe mooy fekk sëñ bi nga toog ci kaw sol mbaxana wala nga yow la ñuy daal di tàmbali jàpp ne ab dof nga ki summi ay dàllam toog ci suuf foq mbaxanaam kooku mooy am valeur ci kanamu ci kanamu ñëpp kon euh, yaakaar naa ne dégg nga li nga xam ne sëñ Moussa wax na ko. Euh, Cheikh Baara wax ko su ñàkk saa moo ñu yëkkati waxtal tuuti xasida balaa ñëwaat. lan ngay lan ngay wax ci ci ci ci ci ñoom ñaar bi ñu wax. waaw euh, sëñ euh, Moussa Fade. Mhm. ci lay jëkk rek wax benn. Mhm. jàngat bu ma def. Mhm. xam naa ñi seetaan. bëggloowaat na leen xasida dëgg la dëgg la. fonkloowaat na leen xasida dinañ ko joxaat beneen wàccuwaay. te it loolu rek lañ ci taamu. ba ku mel ni moom. mën koo woo mu ñëw. mën na ñëw. Mm-hmm. wax nu ko. bu fekkoonte ne ni dañoo xiif bëgg a nàmp mu nàmpal nu ci te yaakaar naa ne. Mm-hmm. lu ci jot a indi. Mm-hmm. lu mu ci dolli rek murit yi suur na. <laughs> waaye loo xamante ne nag moo orbité aras ak kursi yu dafa ne zunut makkaati ba tudd bay naa. al arsi wal kursi te muuru may naa te sëñ Moustapha Sëriñ Tuubaa ngay gis ci mbindam mu lay tudd ay jinne ay malaaka ñoo xam ne yow da koy dégg mais doo ko gis ay ahlu badirin kiraam maanaam nga xam ne kii moom ñi ay ay ay waxtandoo lan maanaam ñooy nekkandoo ñu mu ñu mu miin la ñu mu miin la dégg naa ci génn kilifa mu wax ne sëñ Fallou Fall moom moo daan taal taaw taal ba ca Maayomba fi suñu ak saar tudd léegi doomi Seex Ibra la waaye wax nañ ni ci biir ci ci ci ci ci ci bi ñu ñëwee Thièyène rek am na kilifa goo xam ni dafa jàppanteeg moom ci ci taalibe ci kër gi waaye sëñ bi daa tëjoon daa génn daal ne kan moo joteeg fàllu fàll ba ahlu badrin wër sama kër gi ñu ne ko diw mu ne na gaaw tuubal ko ndax ni ni ñu ko miine lañ ma miine ni ni ñu ne lañ miine fàllu fàll te lan moo ko ko may foofa la daan foofa foofa la daan nekk ak ñoom euh, de am na ci loo xam ne dinañ ciy waxtaan ma ak yow mm-hmm. muy wax nañ ni Sàmba Lawbe danaan toom yàgg sëñ bi wéet foofu bi ñu fa bokkee nekk mm-hmm. mu toom yàgg daal ne comme sama mbokkum sénégalais la te jib na ci moom xaaral may fexe di ko jege waaye mu toom yàgg sëñ bi ne ko dañuy dañuy gis léeg-léeg nga am jegeen moom ana loo ci jubbu mu ne ko damay gis ngay wéet mm-hmm. sëñ bi ne ko xanaa xamoo boo fi ñëwee laay wéet ndax ñi may wéttali duñu nangoo jaxasoog yow keneen fi nga xamante ne sëñ Ba ko ma ma ma ma ñëw ndànk rek ci ki mujjee tudd muy Cheikh Ibra Fall sëñ Moussa Ka moom fekkoon na gaañee xor-xoral moo jëkk jibbal xolam mhm. ñu lay taqal ñu lay setal moo xal gi mii nuy doxe mhm. daal di xam sëriñ bi nag moo xereñ daawut werenteekub sëriñ kon ba tey mi ngi ciy ne kon nag bàjjo bi yaa bari njariñ waa ne yàgg ngaa ndax sëñ Moustapha danoo am invité dama doon def nag benn entre parenthèse di bàyyi nag euh, xam ne sëñ Akassa bu ñëwee gën a mën a jox mu loo xam ne doy na hamdan li munsili wa daa i wa munsilin shifaa bi duwaa i li yadfahuma bi an albalaa'i ndeysaan suma ala man xaysuma stasamad yabra bila bud in wa faas bil xarad muhammadin tabibina alxakimi aska salaamay rabbina alkarimi wal aali wa sahbi zil alaayi maxzuzul asaami li shiwaa'i haza ويدني يوم شعوجائي مبتخيا عدمدي بدائي وسكيح الإمام من الدار خرمسني حتى أراني مقتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دفع قدرنا بجاه خير العالم الأكرمين suma bi yom nii ramadaan ansami suma bi yom nii ramadaan ansami yàlla ya rahmaanu yàlla yàlla yàlla ya rahmaanu yàlla yàlla ya rahmaanu yàlla ya rahmaanu yàlla ya rahmaanu ya rahimu ya barru yaa kariimu yaa asimu ixfir sunubana ixfir sunubana ixfir sunubana ixfir sunubana taqbal minna واحمح منا وتجاوز عنا وارسل ربنا خرجنا مكان ما نخاف من شر نخم وهب لنا العذاب والمسايا وقفا الآفة الرسالة وثمنا الحرصة على طاعتي وقفنا الكسلة في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر ولا شافي فأكا أكا دائي وارجع منا بالابتلاء وانزل نفع مكان دري وانشر الخير مكان شري وانزل العلم مكان الجهل وانزل الجود مكان البخل وانزل الخناء مكان الفخر وانزل الشكر مكان الكفر واشف جميع مسلمنا اجلا سمعهم خوفا وفنا اجلا ونادهم وعافهم وطلبهم فلا تراقصهم بكل ذنبهم فإنهم وإن أسد أحد لقبلته لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا على برائك لدفن يظهروا قلوبهم ليست مربدا من هنا إلى غدا لكن ما تلص الجوارح تلص الجوارح أفضل حمار لإحباء الخبائح فتاخص بما لا ينقص ولهما أبلس لا ينفوق يا الله يا مخلب الخلاب يا الله يا مخلب الخلاب يا الله يا مخلب القلوب خلب قلوبنا عن العيوب واخرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم ودرهم مسلمون ترى لنا أخرى أفن فدوا ولدم المؤمنين فلودا والمؤمنات اسمع فيهم خدع وجندهم المسلمين في ارتقاء والمسلمات بشدياتهم تقع وجندهم علماء عاملين وجندهم عاملين مخلصين وجعلنا مخلصنا ساعدين وجعلنا ساعدين ناسهم وجعلنا ناسنا سائلين وجعلنا سائلين فائزين واخرنا يا ربنا بالخدمة واخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واخرنا يا ربنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجلهم فنودا وخيرا وقفهم مع صدرا وقنا بحل وجهك وقم بحبنا مشوقا وجل الدمع إخوتي ونسبي فرحمة يوم سعدنا سد وجحلنا وعورنا مساء زغب الجنة تفضلا فنقصى وهب لنا وهب لنا المكارم الأخلاق وهب لنا وهب لنا وهب لنا وهب لنا وهب لنا وهب لنا المكارم الأخلاق ما تحبب بلا صراخ ودنس خيرنا يا خر كبير ودن كبرنا ينس خير ودن خوبنا على تودي بلا تناشر ولا تعاشد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباخد ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية واحمي وحبك فنا المسامح ونعج كل مسامح والمسلمة ولنا يا ربنا ولنا يا ربنا ولنا يا ربنا ولنا يا ربنا وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وخدا يوم الخيام عند الممات عند الممات وخدا يوم الخيام بجايتك مصف الأمراض ووهب المرخوبة والأخراض محمد طبيبنا المامح البور الأمراض والأصحاب وسلم عليه ثم سلم وآله مع أصحاب الخدماء مفلى المسؤول بدعائه وفي المريض بفائه ونازم أيضا زاده الله شفاء فيدا يا من يرى مدفع يا من يرى يا من يرى يا من يرى يا من يرى يا من يرى مدفع قلائه فلا تعرف مطلب شفائي ودم عليه في المساء والصباح مخلصا تنشفها أنا فلاح بيس ربنا وجاه المصطفى سلام عليه ربنا كما صفى نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر هو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مسلم بشير لمن لله بالحق يسن نبي أديب زحياء وحسب نزير لمن بالكفر وشرك يعلن نسن بالعكس علم معلم شيخ بلا من كرم دين نجيب عجيب ناسب وهو ناسق هو امر ناحي لسي خالد منه نقيب رقيب مسجب مشعزب مزيح ملاس وهو ميحن مقصن نزيب عزيب جوتا جوتا جوتا مخدم هو الناس والميزان نحم المكن نبلو شأن عصيب مبين هو المستوى المختار وهو المعين نبتها قبل البرايا خد جلت نبتها قبل البرايا البرايا قبل البرايا البرايا قبل البرايا قبل البرايا خد جلت لا سبخ العدد في طين يحسن نجد مجيد موصل من تا معلن يبدال ومخنن معلن نفعلي وابقائي وفوزي بالعمل بكوني خليما المصطفى تتبين نسعته في سري والجهر لي بدن بغادة رحمة سترا يحسن نويت رضا رحمن في خدمة لمن إلى خير ساخة من ليس سنه نفاء نفاء نفاء لسانا نفاء لسانا نفاء لسوانا بالنبي لو حسدا وسيخة إلى آخر الذي يتكهن نهل الواحد الخار الغدا به فراده ومسنه أدبروا ثم لينا نففت به أردا حسيدا سفت وقال ليس مع غير مخن مكنه نسافته كل من الأخوة تهرب وسنتها إن شاء ربي وبينه نسمت بكوني حمد ربي خديمه وصفى بيومري ولا نوتنه نويت بما يختاره شكرا مخمة لخير وراء لخير وراء نهم المخفى الغير كتبت كل ما غسلنا وشرقا وقبل صلاة ربي الذي برضا تلقى وقبل صلاة ربي الذي برضا تلقى الذي برضا تلقى كلامي ونيتي وفعلي توجهت إلى من كفاني الشقاء وضرب شقاء كفاني حفظ المانع جمعة الله والإخانة أحبابا بهم أسر نصرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيد مصطفى xasaay yi damaa jàpp ni man bëgguma ci wax sax waaye nag lu rëy mbuum dee ca lu rëy mbuum dee ca ndax ci lay xëy nit nag lu muy xëy war na caa mën a wax dara waaye xaside yi man damaa jàpp ne du ay way ay tàgg nii rek yu ko am ku jàng naxu ak xarut ak bayaan bu bari yor say këyit di bind wax dëgg yàlla ko loolu noonu sax nag sa am ko man mhm. ah yàlla mhm. man leer na ma ni man naa giñ ci alxuraan ni mhm. du ay tàgg yu way rek ci ay këyit ndax moom dani xasiidati faaxat xasaa idal kiram faaxat xasaa idal xasaa idal ne dañ ko ko doon laaj mu mel ni daf doon wax nit ñi it lim lim jural mm-hmm. mu leen daf maa womatal mm-hmm. ngën di càggu ngën ji càggu ci àdduna ak alaaxira gën jëm diiru jamono walii taqoodu xeral maraam abadan kon nga xam ni man jàpp naa ne xasaay yi du ay tàgg rek yu ko dégg naxwu ak aroot ak bayaan am jot di bind waaw ndax ay tàgg yu bind ci këyit mm-hmm. damay jàpp nii rek ay way doon mm-hmm. suñ ca paree mu pare ca mm-hmm. waaye mbind ay mbind mu defar deret di defar jukko mhm. di defar jëmm mhm. di yar ay cër mhm. di tere nit dugg sawara loolu du mbind kese déedéet déedéet man li ma ko jàppee mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam du jëmm leer la sëñ Tuubaa fab leer gi bind ko ci këyit yi jox ñu ko jàng <laughs> tubaarkàlla euh, jërëjëf euh, sëñ sax xam naa sëñ Moustapha dañuy ñëw ci directement waaye ñu ngi siyaar yi soxna Ndiaye Mbodj Euh, nekk fële ca Pikine donc nuyu bu baax a baax a baax mi ngi topp li nga xam ni mooy jotaay bi di ziare baax euh, Serigne Badia Jouer euh, mu ngi lay ziare si ñàkk sa Samb waaw nee na mi ngi lay nuyu di la ziare ak sëñ Mor Aaj ñu ngi topp jotaay bi waaw. Uh-huh. amin amin amin amin Badia sama nijaay la. dëgg la dëgg la. Uh-huh. kenn gënu ko. ndeysaan. Uh-huh. dañoo bokkul parti nag. moo tax. ndeysaan ndax man ku ma xam-xam ni PDS laa. Mhm. ba bis penc. te tax ñu jël sama tableau ba. Mhm. man Ablaye Wade laa pire. Mhm. du ma ko nëbb. <laughs> ba bis penc nag. waaye moom. nit ku fonk président de la république la Macky di xaritam. waaye moom a jëkk teral ci ndakaaru gii. sama yaay bari yaa joueur. te ba mu dalee tàggulu yonent bi alayhi salaatu wa salaam. yàgg na de. dëgg la. Mbaye mii. indi na ko lugo mhm. mhm. mu di ko gàmmul. Mhm. ak sëñ Mbay Sekk ma dëkkoon Ndar. ñu jeex ci tàggkat yonent bi alayhi salaatu wasalaam fii la ma woon Ndakaaru waa ministre yi ak waa présidence yëpp. tàntante bi ba mu jekk ma ñëw mu dindi million jox ma ni ma defal ci sa poos ni ma jàngal ma xaddamaat ba mu jeex te ñaan cosaan bi barka loxo ni ma amul waxtaan amul nuyoo <laughs> dëgg la dëgg la dindi mbubb moo ko sëñ Abdou Khadir sëñ sëñ sëñ sëñ Moustapha mu sëñ Abdou Khadir joxoon mhm. mu doon ko ci sëñ Abdou Khadir mu jox ko ko mu dindi ko jox ma ko addiy Seexul Xadim dëgg maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom guddal faram amiin yaa te wéral cëram ko ak bëggam amiin amiin bisimilah jërëjëf sëñ Akisa kon sëñ Moustapha xam naa bala ngaa ñëwaat ci xasida am na élément bu ñu waa Rigid di dugalal rek euh, bu ndaw la am njàngat bu ndaw la ñu daal di ñëw ci sëñ Moustapha directement incha allahu rabbi bisimilah. Mhm. dina keneen sëriñ bi waaye dina wane darajee xasaay. Mhm. ndax yaakaar naa ki koy def lu muñ di def ci seen. dëgg la li ko li tax mu dugg ci xol bi. Mhm. xam naa loolu après moom mi dina ko jàng. ñu ngi nuyu sëñ Moraat moom nga wax. sëñ Bassirou Mbackeem sëñ Abdou Khadir. mu ngi topp jotaay bi sëñ Moustapha. waaye itam euh, soxna. maam Faati Mbàkke moom Serigne Fàllu mhm. ak soxna Fàllu ak démb ñoo ndogandoo dëgg sëñ Mor Si mhm. ba maire Bamba Fall mhm. nga xam ne dama ne ko maire yëpp yaa ci gënal ndax yaa tudd sëñ Touba waaw it war na ñëw fi invitation ma fii kër goo xamante ne tey ba ma fa duggee damaa waaw kon sëñ sëñ sëñ ak sa yéen ñëpp na ngeen ko ñaanal ndax nee na daj na ci lu ne waaye jaral na ko sëñ Touba jaral na ko kon moom it mu ngi topp jotaay bi ñu ngi koy ziar bu baax a baax sëñ Moustapha noonu la ñuy bu baax a baax sëñ Mm-hmm. di ziar soxna Fatou mi fi génn bërki démb àdduna mm-hmm. waaye bëgg fàllu yëpp ñu ngi leen di ziar jël ziar teg ko ci loxol mm-hmm. soxna euh, aram mi nga xamante ne kenn mais vidéo bi ku ko seetaan bu ñu ko seetaanee ba noppi nag xam naa sëñ euh, Moustapha ak li muy bëggee indi mu defal ñu ci benn synthèse parce que moom la euh, vidéo mu ci la nañ ko déglu ndax wanee na Serigne Touba ay jalooreem wane na mooy kan waaye tamit wane na daraje xasaayit rawatina xasida gi nga xamante ne nii moom la ci ko wax du ma wax nag dañuy day day tàmbali rek ñoo xam ne kii la bismillah sëriñ Tuuba li mu wax ne moom la doon moom dafa ne abdullahi wa xadimu rasulihi moom la doon loolu nag may yi yàlla joxe yépp moo ci gën a kawe dana am na ñu mu jaaxal li ko waral mooy tabaxub diine bi tudd lislaam daf ko tasaare ci biir yonent yi nga xam ne ñoom la yebaloon ñu nekk ñeenti ummatu muy ummatu saydina nuux ak ummatu saydina ibrahim ak ummatu saydina muusa ak isa ak ummatu saydina muhammad soo gisee ñu tuddee yonante bi xaatimu nabiina mooy tabax boobu ma wax ñu séddale ko ñeenti xeet yooyu Seydina Nuux dañ ko def loolu mel ne fondation bi moo ko xeetam ba addinay dox di dox di dox ba liggéey boobu àgg mu war a des kuule kenn ak yëkkati li war a jëm ci kaw kooku di Seydina Ibrahim ba mu ci jógee mu des kuule daldi defar lépp ba finition des finition lañ def loo yonant bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu tudde ko xaatimul nabiina sëriñ Tuubaa nag loolu mu doon di abdullahi wa xadimu rasulihi mooy li ñuy wax maintenance ci liggéey tabax bu àggee dees ko war a jëfandikoo dëkke ko bu ñu koy dëkkee nag dafa war a am toppatoo boo xam ne amut fu muy yem moom moo tax liggéeyu sëriñ Tuubaa moo ci gën a màgg te it xam-xam bu noox amoon ak sañ-sañam jox nañ ko sëñ Tuubaa ndax kuy def maintenance da ngay xam xam-xamu fondation buy waaj a yàqu ak buy toj ak buy waaj a gawi ndax lu ko mooy fondation dana daanu te doo ko mën a defaraat xam-xamu Seydina Ibrahima ak sañ-sañam am mbóotam jox na ko Serigne tubaa ndax moom it lam tabaxoon ak lam liggéeyam Serigne tubaa moo war a yor maintenance Moussa ak Isa la ñu leen joxoon Serigne Touba baatin ba daf koo yor ak xam-xam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam it mi tëj lépp yor caabi ji dafa fab tabax bi jébbal ko Serigne Touba ko bu ci dara dugg lu ci bokkul bu fi dara génne lu ci bokk te lu yàqu na ko defar moo tax Serigne Touba wax ne nazaani min alwara albaaqi alqadim allamahum bi annani alabdul xadim Serigne Touba nee na yàlla daf ma sëpp ci bindee fi jot ma ñoom dara te xamal na leen ñoom ñëpp te danañ ko mas a xam ne man al abdul xadim moom laa doon mu dellu wax ni ne qad insarafat xaaji ila fatiqi rabqi wa inni lahu abdun wali jaada bil itqi mu ne damaa jox sama borom sama lépp moom itam li ab sang am lépp muy goreel mu def ma mu del wax ni inni la abdun xadimun صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تقريني العتق والإطلاق nag jaam bu nangu njaam li ko sangam di defal moo tudd al-itqu Sëriñ Tuubaa sunu borom daf ko ne lépp lu ma da teg ab jaam ba nga xam ne su ko defee war ca am lu baax bu ko deful ñu war ko caa yedd Sëriñ Tuubaa yàlla daf koo teggi loolu daf koo goreel sëriñ Tuubaa dara gàllewul ci moom loolu na leer dodul ku ñu jox mbir def ba mooyam ci moom mooy wali jaada bil itq al itlaaqu nag mooy li ab sa euh, li li li li li li euh, itqu mooy li boroom yàlla di may ab jaamam itlaaqu mooy li ab sang di may ka koy liggéeyal ci këram kër goo dem booy ba fa nekk di liggéey gis ngeen ne bu boroom kër gi dem caabi yooyu yëpp da koy bàyyeeg moom day dem ca waañ wa di dem ca néeg ya di dem ci fépp ndax loolu boo ko amul doo mën liggéey kër moo tax bi ñu ko defee mu rasul yi moo waral ñu may ko ci biir nguuru sunu borom gi lu ko ci neex def loolu it na leer sëriñ tuubaa toppatuñ ko dara ba di ko ca fay mbaa muy am yaraanga ca la nga xam ne bu ko bindoo woon ba bañ koo def muy ko ñu topp naan lu tee mu def lu te lu tax lu tax defu dañ koo goreel dafa amul limite ci sañ-sañu nguuru yàlla gi li muy def amul sabab amul raison amul logique la ko neex lay def sañ-sañ la tudd bu am solo boobu euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Serigne Saalihu yàlla na fi yàgg loolu te wér ndax euh, murit yépp ko bëgg ngir ngir ngir doom waaye ngir ni mu ni mu lay expliquer sëriñ bi nga di ko comprendre te ku la gën a réussir ci explication bu ñuy comprendre rek moo lay gën a mën a jàngale jàngalekat yi sax foofu la ñu rawante mooy ñoo xam ne bu ñuy wax yàlla day def ci seen làmmiñ fa fasaaxa mu leer naññ def ci soxla nga di yëg li ñuy wax ngir nga koy gën a mën a comprendre sëñ Moustapha euh, yaakaar naa dégg nga sëñ Moustapha saa li mu wax bala ngaa dellusi ci xasida yi da ñuy defal tuuti jàngat sëñ Baara bu ñëwee ci moom it mu defal ñu tuuti jàngat du ko leen dugg waaw tubaarkalla tey laa mos a gis ma ngay jooy suñu am jóg <laughs> amin amin amin moom Cheikh Abdou Khadre euh, Cheikh Abdou Khadre euh, Cheikh san ñu ngi koy wax ne bataaxal bi ñu ma jëkk bind bu bi bind bu jamono ji yëpp manque dañ sama daal loolu rek lu yàgg la lu mu lay ron lenn na rek moo di islam bi ñu nekk ci loxo Cheikh loolu dëgg la si laa jëlal bi mm-hmm. waaw mm-hmm. moom Cheikh euh, mm-hmm. Moustapha Salih lu mu jàngal leen rek moo di l'islam dans sa globalité mu ngi ci loxo Cheikh barki Sëñ Touba walaay nga dëgg xam nga lan la ñoo signifie la signification du mouridisme mooy lan la signification du mouridisme c'est mhm. l'islam dans toute sa pureté originelle ah, waaw nee nañ waa caméra yi neen ngay ngay xoolaale fii ci caméra bi ngir ñi lay seetaan <laughs> di gën a xanaa ñun ñi ngay waxal mooy tax léeg-léeg ngay gëstu bi kii waaw yaa ngi fa am solo kon na wax ak suñu baara Ndiaye mhm. <laughs> waaw moom mhm. la signification du mouridisme c'est l'islam dans toute sa pureté originelle original mooy na mu mhm. tàmbalee woon naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jëfee mhm. loolee lu ñu Sëriñ Tuubaa indi te mënuñu ko indi nag fekk teguwul ci loxo loxoom kon loolu mooy synthèse waxu Sëriñ Musaa Sall dëgg la moo di l'islam yëpp mi ngi ci mhm. loxo Cheikhul Khadim dëgg la waaw di diine Sëriñ Tuubaa ko yor wax nga dëgg de nit ki xam ko ak ñàkk koo xam moo fi nekk waaw waaye dafa dindi l'islam dëgg Cheikhul Khadim ndax moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zaahiran wa mhm. baatinan xarfan mhm. bi xarfin mhm. waaw loolu moo mooy loolu <laughs> waaw ma dellu si tuuti ci xasida yi uh-huh. lu sëñ ak sa wax dëgg la xasida yi bokkuñu fi ndax ñëpp xam nañu ni xam ni xam nañu ay xudsiyaat la ak ay malakutiyaat xasida yi xanaa xam ne xasida guñ ci bind uh-huh. bala ñu ciy jot lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt dana fi jóge jéggi mulk jéggi malakut jéggi pays xutsi muy ñaar pays ak juróom-ñett jéggi xa xadaratullah euh, laahu dem euh, dem ba xadaratu jalal xasida bu ci sëñ bibind lu mu gàtt gàtt it dana fa naan ñeent fukki guddi ci baatin baytul izza baytul izza bu alxuraan jógee ci alwal mahfuus foofu la ko jibril doon jële di koy indil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aay bu dëppoog la xew ci jamono jooju la ilaha illallah lii moo waral xasida yi alxuraan mënuñu tàqali ko benn yoon dëgg la dëgg la xasida yi ci biir alxuraan sax lan leen jëlee mm-hmm. Mm-hmm. xasida gu mu doon jàng ndax ñëwaguma ci xasida yu ma waajal ndax dama waajal mu daa rëy ni uh-huh. waajal mafaatixul bishri mm-hmm. waajal wal xatam dëgg la waaye xasida gu mu jëkk jàng léegi muy matlabu shifaa yi nit ñi duñ jàpp ne rek pour ay jàngoro la waaye xol la gën a gaaw defar waaw ndax xol imam Ghazali dafa ni mooy généralu armée comme général ci am mooy wax jug leen ñu jug bàyyi leen ñu bàyyi te su mhm. taxawee yëpp taxaw dëgg la waaw loolee nag xaside yi di defar mhm. Mhm. te xaside yi niñ ko yoree est-ce que xam nga ni sëñ Moussa ak sëñ euh, Mamor taqandeer xaside la ndax jëmm xaside yi àttanuñ ko doomu atta doomu aadama amul benn doomu aadama bu attan jëmu xasida yi ku dul moom mi ko bind muy Cheikhul Khadim te it daa jéggi doomu aadama nag moo tax mu attan ko waaw dafa dul doomu aadama moo tax mu attan ko du ay waxu daanu kat de waaye lu wér la mm-hmm. Mm-hmm. moom mat la bu shifaay mm-hmm. gis nga jàngoro gu mu mënti doon lii tubaab bi di wax les maladies incurables nga xam du ñuy wax ni yii kenn mënu ko faj. Mhm. madd bu sifaay moom mën na ko lijjanti. barki sëñ Tuubaa. Mhm. yaa barru. soo koy mhm. soo koy da koy bind ba ci yaa barru yaa latifu yaa muaafi. yaa man lahu amru yaa shaafi yaa shaafi googu nag. ngay àggale yaa shaafi yaa shaafi bind ka laa taxaf muy junni. ak téeméer fukk ak benn. bayit ba ca topp. nga bind ko téeméer ak fukk ak benn atale xasida gi waaye nag dafa am secret ndax sëñ bi dafa ni waddum alay fil masaay wa sabaa uh-huh. kon suba ak ngoon da nga koy bind suba noonu bind ko ngoon noonu gis nga ma mag ma ko doon wax dafa ni soo ko booleeg ndoxum taw wala ndoxum teen uh-huh. jëfandikoo ko juróom-ñetti fan la wax uh-huh. la ma wax amul jàngor gu mënul faj ci sa bilan man de gis naa billaahi wallaahi wa tallaahi Hmm. ku ci faj cancer man gis naa ko man Moustapha Ba Diallo wallaahi te du eh, benn du ñaar wax nga dëgg eh, te ci mat la bu si faj wax nga dëgg waaw waaw lu wér la de hmm. Hmm. soo gisee ma ci wax noonu ndax mbóot kenn du ko denc effectivement soo ko dencee faatu bënd la dëgg yàlla loo xam tasaare ko dëgg la say mbokk jullit ndax mbir yi dafa jéggi du mbiru murit mbiru lislaam la dëgg la ndax Sëriñ Tuubaa waxul murit lislaam la wax dëgg la buñ ko laajee fu sa njaboot yam mhm. dafa ni képp kuy tudd laa ilaha illa allah mhm. muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa njabootam la bokk dëgg la kon l'islam la dans toute sa globa globalité mhm. loolu ku ko koy def amul jàngoro ju mënul faj mu teg ci muqaddimaatu lamdaax li ñuy wax ni xasida googu ku koy jàng tàkkusaanu alxamis nga saxal ko jëmm jooju su faatoo tàkkusaanu alxamis bu jotati ba tàkkusaanu ajjuma danay mën a génn ci bàmmeelam di dimbali ñuy dund dana ci daraja jooju wallaahi borom Tuubaa kon nga xamante ne xasida sëñ bi dafa jéggi luñ fuñ koy wax loolu yi ma nga ca aras mm-hmm. suufu aras mm-hmm. taqandeer la ñu yor nii te mm-hmm. nit ñaa ngi ciy def lu ne ci taqandeeru xasida yi suñu ñëw ci xasida gu ñoo wax ma mafatixul bichri wal am amn wal jan fi salaat wa taslim ala muqimi sunna xasida googu wax ni ku toog wéet jàng ko ba mu jeex soo génnee ñeent fukki nit yoo saafoonteel suñu borom bi jéggal leen seen bakka mel ni ñoo ngi soog a gën a àdduna waaw yow mi ko jàng nu mu mel wax naa ko am ku doon tontu ci YouTube ñun duñ tontu yooyu waaye lu ñu wirte wóor moo di li ñu gëm te suñu borom bi xamal ñu ko amul jëmm ji ci mën a fexe ba ñu génn ci benn virgule déedéet waaw duñ ci way dégg nag ndax xam liñ ci xam moo tax waaye mafatixul bichri ku koy jàng ku ne laa wax sama baat na poto yowmal qiyaam jëm yi nga xamante ni safara yey na leen mën nga ci malaaka yi di leen diri nan leen di dire ñii seen karu bopp ñii duñ leen di diri ngir jëme safara nga dogale leen jël ci lu la ci soob tàbbal ko àjjan te kenn du ci wax dara te suñu borom du ci ànd ak yow kuy jàng ma faatixul bisir dara jaam àgg na ci foofu waaw soo jëlee bayit bu nga xam soo gisee nag li ñu ciy wax du caaginu di ñuy jox nit ñi ay boobu ñu war a jëfe déedéet lañ ci jublu moo di nit ki su jëlee xasida gu muy jàng te dégg luñ ci doon wax mu xam ne lii yëpp mu ngi ci biir xasida gi durus jàll rek wa salli yaa muyassira siaabi wa salliman ala muzilil aabi soo jëlee bayit boobu soo ko addadee daf lay jox mille cinq cent quarante neuf ak juróomi téeméer rek ñeent su fekkee ne boole nga ci aliful bi ci alaa gi muy liif gu ci boolewul daf lay jox mille cinq cent quarante huit mu doon junne ak juróomi téeméer rek ñeent fukk ak juróom-ñett soo xoolee bayit bi mu yassiru boobu ci nekk yaa mu yassiru adat ko daf lay jox juróomi téeméer ak juróom fukk cinq cent cinquante moo jàpp fukki yoon mu jiwu saa yoo waxee benn yoon yaa mu yassiru waajee toog wax fee fukki yoon yaa mu jiwu yéen ay soogaa tolloo fekk àggagul fukki yoon yaa ko ëppale léegi nag soo jëlee adat bi nga xamante ne mooy mille cinq cent quarante neuf junni juróom ñeent juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent nga jël nam moo la jox neuf mille quatre cent cinquante et juróom-ñeenti junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn soo leen boole dafay jox onze mille onze mille da gis ni fukki yoon ak benn huwa la euh, euh, euh, fukki yoon ak benn yaa mux nii la yaa mux nii nga xam ni ku koy jëfee at mi ren tur yàlla boobu at mi dëwan lépp loo xamante ni soxla nga ko dóor soo ko tewoo ci doomu aadama waaye ci sa borom rek dootoo amati dara soxla ci doomu aadama doomu aadama kay mooy wëlbatu di am soxla ci yow yaa moo nii digg na ci kon ci bayit boobu soo ko defee noonu fukki yoon ak benn te yaa moo wax nii it moo jàpp bi yi rabbihim kon yaa ngi koy def ci sa ndigalu borom soo ko xoolee yit dangay gis ni ñeenti téeméeri yaa mu jiibu la xoolal ba mbuur xasida yi di di di di làmboo da gis ni ñaar fukki yoon yàmmu yassiru bu ma doon wax waaw ci bayit bi ba tey wasalli yàmmu yassir saab da gis ni huwa jàll ñaari téeméer ak juróom fukk la ci soo jëlee adadu nag mille cinq cent quarante-huit bi muy junne ak juróomi téeméer fukk ak juróom-ñett da ngay gis ni badiicu bu ñu multiplier ak xaju la 18 multiplié par 86 fukk ak juróom-ñett muy xayu 86 muy juróom-ñett fukk ak juróom-benn mooy yaa badiiu da ngay gis ni fukki yoon ak ñaar latif la kon yaa ngi jàng xasida xam xamoon ni sax pour yàlla yëpp yaa ngi koy wir daale xoolal loolu nu mu yéeme nga jël rek xool rek jël ci coppet ci ba bi mu yassiru siaab soo ko addee dee 714 la lay jox juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñeent juróom fukki yoon ak benn waxaabu la xoolal loolu nu mu yéemee juróom-ñaar yoon amin la te amin ci la ñoon nangoo ñaan ndax mooy tëj ñaan te amin it code la ndax amin saa yoo ko waxee wax nga juróom yonent diggante bi aadama la yonent yàlla aadama salaam dundoon na juróom-ñeenti téeméeri at ak juróom benn fukk te waroon dund junne at lu tax loolu moo di suñu borom bu ko sàkkee daf ko wan képp koo xam doomu aadama la képp ku na a gane àdduna ci àddina mu won ko ko xamal ko kii du diw lay tudd diw mooy ndeyam diw mooy baayam ci biir ñooñu ci sëtam yooyu mu gis ci kenn ko am da koo sopp lool ndax leer gu doon laqet leer xet ci bëtam mu yonti yàlla daawuda mu xool atam yi néew mu ñaan sunu borom mu dindi ñeent fukki at ci ay atam jox ko ko sunu borom bi defal ko loolu moo tax malakal mawti ñëw di jël su rooxam dafa ne ko déet def na ñeent fukki at mu ni ko déet mat na mu ni ko déet junne at lan ma digoon ndax fàtte na doomu aadama ci foofu la jóge mu ni ko yow kat yaa jël ñeent at yi jox ko sa sët bu ñoo wax daawuda ci la ko waaw wax nga dëgg kon mën nga def liggéey mu jël xam moom taxawaayam fanweeri mètre la woon moom aadama mooy borom rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin waaw mi ngi ci sortul araf ay ñaar fukk ak ñett liif gi alif gi ibrahima la taxaw alayhi salaam moom dundoon na téeméeri at ak juróom ñaar fukk ak juróom alxuraan tudd na ko juróom benn fukki yoon ak juróom ñeent ci ñaar fukki saar ak juróom yu wuute ku amoon taxawaay la ku amoon kattan la mooy borom rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim mi ngi ci sourate baqara ayatu ay 128 téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett miim gi ci amin rek laa code gu nu mu doone Moussa alayhi salaam moom dundoon na téeméer at ak ñaar fukk la dundoon waaw moom yonent yàlla Moussa salaam luñ ko wax ci alxuraan moo ëpp lu ñu wax beneen yonent ndax wax nañ ko ci alxuraan téeméer ak fanweer ak juróom-benn yonent bi sax daawoon na di wax ni Moussa di xaw na jeexal sama téere bi ndax luñ ko ci tudd mooy borom rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqirin suratu qasas ay ñaar fukk ak ñeent yenn rek yaaj mooy yonent yàlla yunus alayhi salaam dundoon na téeméeri at ak fanweer ak juróom la ñuy wax zannun juróom-benn yoon lakk ko alxuraan tudd turam mooy borom laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin suuratul anbiya ay juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar nu ngi yonti yàlla noox la dundoon nu junnee at ak juróom fukk foofu nag daf ci bare ay wuute waaw ibn jawzi indi na ci tiréem wuute yooyu yëpp ndax yuusufa ibn mihrab ak ibn abbas ñoom duñu ni noox ñeen fukki at la dund nubuwa gi feeñu ko mu ànd ak gaa yi yàlla yónni woon juróom-ñeenti téeméer at ak juróom fukk cinquante an gannaaw tuufaan gi mu dundaat juróom benn fukki at moo indi 1050 ans yi muy junne at ak juróom moom yonent yàlla nuux kaab al axbaar moom wax na ni yonent yàlla nuux de dund na juróom-ñeent téeméer at ak juróom fukk gannaaw tuufaan gi mu dundaat juróom-ñaar fukki at moo ko jox mille 1020 ans mu doon junne at ak ñaar fukki at awn ibn abi shaddaad moom dafa ne noox dund na ñetti téeméer at ak juróom fukk ñoo ngi ci mafaatixul bishre de xasi dëggee riche rek waaw dund na ñetti téeméer at ak juróom fukk trois cent cinquante ans ci la que nubuwa gi feeñu mu dund trois cent cinquante ans ak ñu mu nekkaloon gannaaw tuufaan gi mu dund neuf euh, trois cent cinquante ans mu doon mille six cent cinquante ans muy junne at ak juróom benn téeméer ak juróom fukk xattaat moom dafa ni yontu yàlla Nuux dund na ñetti téeméeri at nubuwa gi feeñu ko mu ànd ak ñam yàlla yónni woon ñetti téeméeri at gannaaw tuufaan gi mu dund ñetti téeméer ak juróom fukki at muy neuf cent cinquante ans muy juróom ñeenti ak juróom fukk waaye la ñu jàpp ñun mooy lu Ibn Abbas wax moo di yontu yàlla Nuux dund junne at ak juróom fukk matafi Bichir moo mel noonu mooy borom fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaaran yursilu samaa aleykum midaaran wa yumdidkum bi amwaalin baniin wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al lakum anhaaran waaw mi ngi si soor Nuux ay fukk fukk ak benn ak fukk ak ñaar waaw xoolal bayit boobu lu mu lamboo ci ci richesse waaw soo jëlee beneen bayit ci ci ci ma fatu Bichri naafiu salli wal tusallim kulla xiin ala nabiyika raisi salihin soo xoolee bayit boobu soo ko addee daf lay jox ñaari junni ak téeméer ak juróom-ñeent su fekkente ni danga ci boole liif gu dog gi su fekk ci alaa soo ko ci boole day doon ñaari junni ak téeméer ak juróom soo jëlee ñaari lim yëpp boo ci jël day dem soo jëlee ñaari junni téeméer ak juróom-ñeent muy deux mille dix deux mille neuf da ngay gis ni ahadu bu ñu multiplier ak kaafi la xool turu yàlla nu muy génn ci xasida Cheikhul Xadim ahadu 19 la kaafi 111 soo ko multiplier soo ko darboo loolu mu jox la deux ñaari junne ak téeméer ak juróom-ñeent nga gis ni it soo jëlee cent 2108 moom faatiha da cee feeñ ndax soo wàññee xurufu faatiha yi soo ci boolewul amin gi 124 xuruf la téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti xuruf la te téeméer ñaar fukk ak ñeent yooyu soo ko def boobu fukki yoon ak juróom-ñaar moo lay jox deux mille mu jàpp ba jàpp na tur yàlla bu ñu wax yaa mu aydu pour wan la xasida yi nu ñu riche sëñ Tuubaa kenn xamut lu mu doon moom daal moo xam boppam ak suñu borom waaw waaw ak yonent bi sallallahu alayhi wa keneen ku dul ñuy umpale nga sëriñ bi ndax sëriñ bi ku kay xam day fekk dangay jiitu ndey ak baay sëñ Malick Fall bu dëkkoon fii daf ñu wax ni lu jiitu ndey bàyyi baay di am dafa daaw di ànd ak ku tedd ci Cheikhul Khadim ak maam Cheikh Ibrahima dox suñu ndigalu borom bi nee na mosuñu ñëw ba tiim Ndakaaru bi muy wax ci neen nag nu ñu daan di demee moo di ku tedd ki day jiitu maam Cheikh topp ci mu topp ci. nen bu ñu ñëwee ba Ndakaaru bi mu ni xur beeg lëndëm nee na Cheikh Ibrahima fette su ko daani moo tin de daan ba ndey ak baay am nga wàcc si xur fii di fa liggéeyal sëñ Bamba <laughs> waaw moo ñu kan nekk lool kenn du moom kenn du moom sëñ bi xam naa danañu ci bégal léegi damay wax ni mook sëñ bi kan moo ci feeñal boppam nee nañ Cheikh Ibra feeñal sëñ bi waaye sëñ bi feeñal na seex Ibra waaw ndax ni mu doxee kat mii nuñu ko waaw mii nuñu ko woon de waaw ci yóbbante bu yónnee indil ma li tegal ma li ci la gaa yi daaw di àgg ci góoru yàlla yi ba di dépassé leen bay ak ci pays yu nga xamante ni nit dund na ba dee ba am ngërëmal yàlla te du fa yet waaw te boole kaag di jaamu yàlla xeeti jaamu yàlla gu kon <laughs> ñu dellu siwaat ci sunu sunu sunu sunu sunu xasida soo gisee ba tey naafiu salli wal tusallim kulla xiin nga jël euh, euh, xat bu njëkk bi soo ko xoolee daf lay jox junne ñaari téeméer ak fukk ak juróom mille deux cent quinze loolu soo ko xoolee da gis ni juróom-ñeenti asamadu la cent trente cinq asamadu soo ko àddee cent trente cinq kon juróom-ñeenti yoon la te as cent trente cinq boobu it dafa dugg ci latif ndax moo jàpp ëpp kooku ñuy wér di sëñ bi moom xam naa xam nañ ko waaw soo ñëwee it ci ba tey xoolaat que daa gis ni juróomi yoon 243 la ñetti mi rek ñeent fukk ak ñett te 243 moo jàpp jamra waaw te siru jamra génn na fu bare fu bare fu bare soo demee ci sax sortul ak génn na ci man talxin mandudin soo ko addadee loolu la lay jox waaw jabbaaru zaki soo ko addadee loolu la lay jox allahu samadu jalil soo ko addadee loolu la lay jox allahu ahlalun hayyaanu batadun zahajun waaxun soo ko addee loolu la lay jox waaw waaw soo ko dar boo ñeenti yoon moo lay jox ixlaas na ndax 972 la xoolal mbiri nu muy dugalante te jamru it soo ko addee juróom-ñaar yoon mu jox la junne ak juróom-ñaar téeméer ak benn waaw suraaqu wa duudu aysun kooku ñu mel ne sëñ bi xam nañ ko pour won la xasida yi foo leen takk rek wees nañ foofu waaw foofu nga jël nag xasida gi bayit bii uktub lahu fi alihi wa sahbi xayra salaam may ni wa wadix lax bi wa wadix lax bi lu yéeme ci nekk yéeme gi moo di soo addadee bay bi dafa lay jox ñaari junne ak juróom-ñeent fukk ak ñett 2093 te juróom-ñaari raxmaan la te raxmaan dafa yéeme turu yàlla bu yéeme la ndax ñëpp ci dañ kuy jullit ak ku dul jullit ak ku nàngam ak ñëpp a daje ci raxmaan ndax yàlla ñëpp lay jox xéewalam bi raxmaan boobu sunu borom daf ñu ko junj ba tàyyi ci alxuraan te dégguñu ko arrahman yàlla daf ñu ko junj ba tàyyi te dégguñu ko ndax wax nañ alif laam ra xaamim loola loolu du rahman dégguñu ko mu indi arrahman allama alquran xalaqal insaan allamahu bayaan nga xamante ni raxmaan googu di ñuy wax ni sëñ bi indi na ko sax majmau majmau nuurayni am na yeneen téere yu ko indi wax ni raxmaan yaa raxmaan gannaaw julli farata gu ne soo ko wir dee junne yoon ba mu mot fukki fan ak ñeent sa bët yi dana fekk dama gis malaaka wallahi alazim raxmaan ku koy wir di junne yoon gannaaw jullik farata gu nekk ba mu mat fukki fan ak ñeent sa bët dana fet ba daal di mën a gis malaaka te soo jëlee loolu baatin bi day doon kon soo de mille rahman day doon mille multiplié par deux cent quatre vingt ndax deux cent quatre-vingt-dix-neuf mooy adadu rahman kon daf lay jox deux cent quatre vingt mille nañ jàpp bu baax lu may ci te déglu ma tuuti ndax rahman deux cent quatre vingt dix kon soo ko defee mille fois ci zahir am nga mille rahman waaye ci baatin am nga deux cent quatre vingt dix mille rahman léegi nag soo ko defee ci juróomi waxtu yi kon dangay jël deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille multiplié par cinq daf lay jox un million quatre cent quatre vingt mille million ak ñeenti téeméer junni ak juróom-ñeent fukki junne ak juróomi junne ci rahman léegi nag soo ko defee ci fukki fan ñeent soo ko defee ci fukki fan ak ñeent daf lay jox vingt millions neuf cent trente mille ñaar fukki million ak juróom-ñeenti téeméeri junni ak fanweeri junni de de vingt nag neuf cent mille yooyu soo ko càmbaree da ngay gis ni deux mille quatre-vingt-treize multiplié par par par par par par par dix mille la te deux mille quatre-vingt-treize moo jàpp bayit bi uktub kon uktub boobu ku koy def dix mille fois sa bët dana fett ba da ngay mën a gis ay malaat te mu ngi ci euh, mafatixul bisri waxuma nga jàng fatul bisir bi yëpp waaye nga seppi bayit boobu bayit boobu benn bayit boobu nga def ko diini fa insha allahu rabbi ci jëfin bu sell nag ndax xasiday sell nañ ba pare nit mooy jëf jëfin bu sell waaye su ko defee bëtam dana fett ba mu mën a gis malaaka yi waaw loolu ci xasida cheikhul qadim ji mooy uktub lahu fi ali wa sahbi xayra salaam may nu wow a dex lax bi am na sax ñu koy riyaada di ko def loolu soo jëlee bayit bii wa salli an ni yaa muyassir al asir ala alladina bihi laka almasir da nga ciy gis yu bare ndax muyassir al asir mi ngi ci muyassir al asir soo ko addadee daf lay wax junne téeméer ak juróom benn fukk ak benn cent soixante moo jàpp juróom-ñeenti yoon yàlla latiif xam nga su ñuy wax ñaan nañu jàng juróom-ñeenti yoon latiif baax na nga ni yàlla latiif yàlla tiif ba mu mot juróom-ñeenti yoon kooku mooy zahir bi waaye baatin bi moo di nga def 9 multiplié par 129 mu jox la 1161 juróom-ñeenti yooyu sax latif yooyu am na mag ñi nuñ ko daan di defe pour gaawal aaju mu faju dañuy noyyi ba mu dugg ba sës ñu fexe ba seen liit bi fii

581 la moo jàpp alhamdulilahi rabbil alamin xoolal secret yooyu nga xamante ni mi ngi ci biir xasida yi waaw sant nag dañuy wax ni cant ñeenti xaaj la alhamdulilahi sant boppam alhamdulilahi la xalaq samawati wal ard boo gis ci alxuraan sunu borom sant boppam yàlla sant jaamam ni'mal abdu innahu awwaab jaam bi sant boroomam waa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin ñaari jaam yi santante indi indil ñu ko man lam shukuri naasa lam shukurillah waaw te it nag station cant googu ñetti station la alhamdulilah ala kulli xaal foofu la ñuy dugale zamaan ak makaan am na ñu koy teqale sax waaye foofu la ñuy dugale le espace et le temps am alhamdulilahi xaqa xamdihi muy ñaareelu station bi ñetteel di alhamdulilahi rabbil alamin am na sax yeneen station yoo xamante ni xëy na daf fi dul xaj ndax euh, émission bi dafa dafa am waxtu bu mu war a euh, taxaw waaw waaye su waxtu waaxul si jeexul su yoon jeexul waax waaxul du jeex waaw waaw sant yooyu yëpp dafa dugg ci biir xasida ci biir bayit bi te da nga ciy dem ba génn sax nag sirul xam tàbbi ci sirlu ashukr ndax shukru dafa bokk ci maqamatul yaqin noonu la lu sëriñ bi doon wax léegi al mahabba dafa bokk ci maqamatul yaqin ñii ni juróom ñeen ñii ni fukk ak benn la waaye bu ci mënti doon al mahabba daf ci bokk al shukru daf ci bokk ndax jëf su tàbbee ndax sant moom ci làmmiñ la hamd waaw wa qul alhamdulillahi alladi lam yattaxiz waladan wa lam yakun lahu sharikun fi lmulki wa lam yakun lahu waliyun min adulli wa kabirhu takbiran allahu akbar waaye nag su jëf tàbbee nag day génn maqaama xamd tab maqaamay shukr i'malu al daawuda shukra soo génnee nag ci shukr yaa ngi jëm ci rida foofu nag mooy njombaxtal li te gis nga xasida gi di ma faatixul bishri foofu dafa faj nuuru daarey ni xasida lu nga xamante ni soo koy jàng dañ lay yóbbu bi ba ci maqaam bu ñoo tudde al aqlul amal al aqlul awal soo fa génne yaa ngi jëm ci maqaamay sirru maqaamay sirru di ñuy wax ni ku ci yegg ku ne suñu borom dana jël junne téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeenti junne kiiraay muura muura la te benn buñ ci muri àddina tukki ndax jant bi moo dul attan sa sa sa sa daraja jant bi moo attan sa leer te loolu xasida Sëriñ Tuubaa yi daf koy joxe waaw kay kon ñu jabat foofu ba ba dellu si waat tour bii ñu defaat mooy doon dernier tour pour ñu pour ñu mën a pour ñu mën a tàggatoo. Mm-hmm. bala muy gën a guddi waaye xam naa dañuy dem directement ci Cheikh Bara rek ci ni nga xamee ni tey nag daanaka jotaay bi mën na ni jàngkat yëpp ngi fi. gis naa fi ñoom sëñ Mor Gueye sëñ Saliou Seck Rayet. Euh, sëñ àll kan sëñ Pape Diop gaa yëpp dañoo daw ñëw seetaan. si tey mbay sàpp euh, waaw mbay sàpp sàpp sax ñëw na. mbay ci plateau bi ma nga ne toog mbay moom. incha allah ak mën a xeexal sëñ kon su ko defee. maam Thierno euh, engagement. waaw maam Thierno ñoom ñëpp ñëw na Cheikh Bara. yaakaar naa dégg nga li nga xam ne sëñ Moustapha wax na ko. waaye tamit bala ngaa ñëw ci fi nga xam ne fi nga tolloon. ci wàllu li nga xamante ni mooy ni nga ko ni nga ko ni nga ko tàmbalee ci ci suñu maam aadama ba ci yonent bi ba ni mu wàccee euh, waaw yaakaar naa ni ñëpp dégg nañ ko noonu kon ñu ñu moom dañ koy bàyyi rek abal ko micro bi mu mu mu continuer su ko defee euh, ci bara waaye da ñuy da ñuy defal benn synthèse bu ndaw rek ci suñu Moustapha Saliou vidéo bi door a door continuer li nga xamante ni mooy waxtaan bi bisimilah waaw euh, ñoo ngi sëñ bi moom sëñ bajaan moom xam naa ne bu subaa moom loo seen muy ñuul sa kër rek mën a mm-hmm. ma ne suba daal loo seen muy ñuul sa kër moom man am na <laughs> xam naa daal li ma dégg ci moom mhm. euh, ab émission doyuma ci bu subaa daal dinaa indi créé bu rëy rek soobe yàlla <laughs> <laughs> euh, ñi ngi waale bu baax baay Marsène mhm. ak euh, njabootu sëñ Abdourahim Fall gépp ñu ngi seetaan yaa kenn mhm. ak ma ñang ak ñoom soxna maam Jaara ak waa maam faatu Mbaye ñoom ñëpp ñu ngi ñuy seetaan ak euh, njabootu sëñ Assane Ndiaye itam ngi gis sëñ Cheikh euh, Mbacke Ndiaye mu sëñ Mbacke Fatou Sylla mm-hmm. euh, ak sëñ Abdou Khadir mu sëñ Jili mu Jili mu sëñ Ngunda ak Cheikh Ndiaye mu sëñ Ngunda ak sëñ Moustapha Ndiaye al Karim ak mm-hmm. njabootu sëñ daaru gi yëpp sëñ Moustapha ñoom ñëpp ñu ngi bind di wax na ñu ngi ñuy ak sëñ Khadim Ndiaye imam mm-hmm. ñu koy nuyu bu baax ñu ngi koy siyaare ñoom ñëpp ñu ngi topp jataay bi waaw sëñ Moustapha euh, saaliwu comme ni mu ko waxee. moom moom ay waxam. Euh, daanaka euh, damay wax ne rek toujours li sëñ Abdou Lahad daan def ci murid yi. ca ba muy dund moom loolu lay def ci murid yi. mooy wax ju fullawu faydawu ba noppi di tëbbu nit. nga xam ne da koy déglu rek maanaam automatiquement mu def ci yow xaal. dëgg la loolu moom daf koy daf koy daf koy daf koy indi ci xol murid comme waxtaanu sëñ Abdou daal. moom waxtaanu suñu Abdoulaat rek moom mooy waxtaanu suñu Moustapha Saliou te it dafay dafa nekk nit koo xam ne man li ma gën a bëgg ci euh, xam-xam lépp mooy nit ki saabu yu wax ak yow dangay ngay da ngay boo paree da ngay ñeme li nga nekk rek waaw parce que comme ni ma ko doon waxee léegi lépp ci àdduna ci cofeel dong la taxawaat mm-hmm. te saa boo amee dut ci li nga nekk cofeel ga dafay manqué dëgg te loolu dafa dem ba laal ñu ñun jeunesse bi ñu baree bari surtout ci murid yi kii mi ngi wax léegi ci Facebook yeeg yu baree bari da ngay dégg ñuy wax mën ngaa am complexe sax ci li nga nekk mhm. euh, te àdduna moom saa boo yox yoxee rek maanaam li nga jàpp ci dëgg la euh, te koy wax maa ngi gis fan yële ma seetaan maam Mor Mbaye mi ñu la sëñ Touba defal mhm. ci YouTube wax rek ma ah, lim laal baaxut <laughs> sëñ Touba euh. moom maam Mor Mbaay ñu bokk jenn ajjana bu yowmal xayaamee ak man mii ak gaa yi te xam nga loolu lu koy def mhm. mooy bu fekkoon sëñ tubaa daa nekk nee mhm. di jaamul yàlla boppam pour dem ajjana mhm. maam Mor nekk nee di jaamul yàlla boppam pour dem ajjana bu paree ajjana ji sëñ tubaa di nekk ak ji maam Mor di nekk duñ seenante dëgg la ndax njàmbaar gi tolluwut xam-xam bi muy jaamoo yàlla tolloowul nangu gi yàlla nangu tolloowul mhm. waaye sëñ tubaa day jaamu ba yàlla aj ko fu kawe mhm. maamoor ñëw bëgg ko dugg ca biir bëgg sëñ tubaa almar al almar uma man habba ku nekk ki nga bëgg yéenay bokk fu ngeen nekk kooku rek bëgg kooku rek la kooku laa nga ko bëgg nag waaw yow mal xeyaamee fii ne lu sëñ tubaa am nga am ko ci barke sëñ tubaa alhamdulilah parce que genn buum mooy yeew mooy buumuk cofeel ci yonent bi moo ko wax enn ku mm-hmm. nekk ki nga bëgg yéenay bokk fu ngeen nekk dëgg la dëgg la loolu nag mooy wërsëg ñu sëñ Tuubaa yi ñu yàlla defal ci sëñ Tuubaa dëgg la de ndax ka jamononteeg boo marle mm-hmm. ñuy feeñalal ko ko ba mu bëgg ko mm-hmm. bu ëllëgee foofu boo marle nekk fa lay nekk nun jamononteeg sëñ Tuubaa yàlla ñu feeñalal ñu ko ci Tuubaa tiiweeg làmp faal ak ñoom suñ ngànn mesere jaar fee feeñalal ñu ko bañ bëgg ko bu yowmal xiyaamee sëñ nekk ñu nekk. foofu lañ nekk bu suñ pexey bopp ak suñ yëfi bopp. Mhm. ñu fa yegg. dëgg la dafa ak mhm. dafa dafa tàmbali fii. Mhm. mooy base yeeg. oto yeeg. téléphone yeeg. lépp dem bu ci buñ ne la woon sam xel ak sam jàmbaar a koy def. doo ko am doo ko am dëgg la. bi nga bëggee sëñ Tuubaa tamit dëgg ci yow rek la loolu tàmbalee am. dëgg la waay dëgg la de. kon texe gi. maanaam sëñ tubaa nam daan ko laayoo ci njaareem lépp di ko fa fekk saa yoo bëggee sëñ tubaa tamit dëgg rek day tàmbalee dëgg la dëgg la nga gis murit boo xam ne néegam lay tëdd bu ngoonee mu teg ca keppaar ga tàngal kafeem mhm. te da naan kii fu muy jëlee oto yi man gis naa ñu naan suñ jiw day soppi xaalis ay machine xaalis lañ yor fekk <laughs> ba sëñ Touba nekkoon rek lañ toll <laughs> loo mas a xalaat ci àdduna boo ñëwee biir këram fekk ko fa dañ ko daa andil ba andil ko lu mu bëgg lu mu bëggul mhm. xoolal buñ màggalee ba ci suba ga béyee xaalis yi ñuy def ñuy def ni ñuy wëree bërëbu sëñ Touba bi mhm. ak barke sëñ nga xam ne dañuy wax xaalis xaalis di wër sëñ Tuubaa maa la wax la demee mhm. Mhm. su ko defee kon mhm. euh, sëñ Tuubaa andi na aw yoon muy léegi mu delluwaat ci ak mbëgg mooy nit ki am lu bëgg waaye nag bëgg daa mën a lor mën a jariñ moo tax ñu naan la diw dafa bëgg àdduna ñi la koy tere muy bëgg àdduna bëgg daraja bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg sa bakkan bëgg bànneex yooyu yëpp dañ koy maanaam boo ñëwee ci tasawuf dañ koy mbëggeel yooyu yëpp ngir saxal genn mbëggeel muy mbëggeelu yàlla ki mhm. ndax nit saa yu bëggee boppam dëgg-dëgg ak mbëggeelam ci suñu borom day des saa yu bëggee daraja dëgg-dëgg yoon bay mayee yoonu yàlla du ko nangooti mën mhm. naa bëgg nag waaye saa buñ tegee rek mu ne ah man maanaam sa bopp ngay gisaat ci lépp li ñuy wax égoïsme dalay sànk bu ko defee ñi lay rayal bakkan yooyu bakkan yooyu ñu ko lu dul ngir nga man a janoo maanaam génn mbëggeel gi nga xam ne mooy buumu cofe bu dëgg gi mooy bëgg gi ngay bëgg suñ borom muy nga nekk muridullah ki nam mu yàlla dëgg bi suñ tubaab bëggee loolu nag maanaam dafa am exantillon bu mu teg dinañ ma baal nag man sama philosophie bopp la xëy maay juum waaye man dañu naan bàyyi faal ñu ne ñu ne sañ-sañu sëñ la sëñ tubaa leen may sañ ci liñ nekk mm-hmm. man nag dama ne d'accorduma ko mm-hmm. te yàgg naa ko bañ a d'accord xëy na su ma ko wax ci télé mhm. mooy sañ-sañu yàlla moom mhm. sëñ tubaa du ñëwaat di ci tegaatub sañ-sañam dëgg sañ-sañu yàlla mhm. sëñ tubaa du ci tegaatub sañ-sañam Baay Faal yi lii ñu nekk nii du sañ-sañ bu leen sañ tubaa de njàngale suñ borom la bu yonent bi dund yoon wa dee sëñ tubaa ñëw ne li Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xaraa wa inni ahmad dëgg la naka la yonent bi dundale dundug Baay Faal la ñëw Baye faal nag du tur amutu tur kon maanaam amul nenn num tudd na mhm. ki ko doon dund daa nekkoon mat ñu bàyyi te sant Fall donc ñu naan ko Baye Fall waaye benn affaire la bu mu yoroon di ko def mhm. te tuddewu ko nenn ñu jekki jekk bu nekkoon ca njóobeen gi ñu naan Baye Diop bu nekkoon ca saween gi ñu naan Baye Saw amutu tur benn philosophie la boo xam ne ci biir l'islam la bokk ñu koy appliqué te amutu tur te dama cee bëgg a indi loo xam ne ku leen ko bàyyee yow yaay yéefar waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee dangay ngay ne Baay Faal yi du ñu julli moo tax duñu dara yonent bi am na cinquante trois cent ci àdduna doog a laal jëwam bii ci suuf waaw am na juróom fukki at ak ñett doog julli am na quarante yoo xam ne moom lislaam ñëwut ci moom yor na lislaam ci treize ans te digaluñ ko mu julli dégg nga mhm. lislaam ji mhm. ba muy door yonent bi sallallahu alayhi wa benn baat la yoroon di ko wootee muy day ñëw ba ci yow mu la qul laa ilaha illa allah mm-hmm. waxal laa ilaha illa allah nga texe mm-hmm. waxal laa ilaha illa allah nga texe soo waxee laa ilaha illa allah leen képp fa nekkoon ci jaamu yàlla ndax booba xadis yi wàccagul alxuraan it ma nga ca lam nafus ñëwagul kon mm-hmm. mënoo mënoo ne li may def dama koy tolloo ak sunna wala dama koy tolloo ak téere bi la ngay wax laa ilaha illa allah te topp ci ginnaaw yonant bi bu la digalee nga def bu la teree nga bay bu digalee nga def bu la tere loolu moo nekkoon lislaam fukki at ak ñett jullit ñi dund nañ ko ci màkka kenn benn jullit mësta julli benn jullit mësta woor benn jullit mësta natt asaka benn ñi ngi dëkkoon ci taatu kaaba gi te mësuñoo aj mhm. te ñi ngi woon ci diine mhm. kon boo bëggee tey nga ñëw ne julli gi ak woor gi mooy diine ji kon xamoo diine mhm. ndax diine nekk na fi mhm. ay nit jàpp ko ba faatu ci dugg àjjana yaay Xadiija tey ko dekkaloon ni ko jullit du julli mhm. te mooy yaayu jullit jullit ak saxaaba yu bari Sumayya ak ñu baree baree bari ñi nga xam ne Màkka lañ faatoo koo ci taxawaloon fii tey ni ko jullit du julli te mënoo ko génn ci diine ji ndax bu yowmal xiyaamee yéen ay bokk benn ran soo ne maa diine ji matut woon booba diine ju matut kenn du ci dugg àjjana balaa nga koo xam nga yor aw nga yor 9000 bëgg a jënd luy jar 10000 du dem baa ma bëgg laa woo dind ci benn chiffre yu ah, ah téléphone bi sax boo amul boo amut chiffre yu mat doo wootee mhm. kon donc l'islam ji daa mat mhm. doo ko mën a dugal kenn ajjan mhm. l'islam ji daa doo ko mën a teg kenn ci aw yoon ñu ko wooyee ak jullit l'islam ju mat jooju sahaaba yi yoroon ca màkka fukki at ak ñett l'islam jooju doxalin woowu la sëñ tuubaa jël jox ko Cheikh Ibrahima Fall mu di ko dox nga xam ne booba te booba day nekk jullit tey tey tey maanaam mën ngaa nekk jullit onze heures midi jot yonent bi ne gàddaay yow ñàkk nga sa kër ak sa bitig bi nga yoroon mën ngaa dugg ci lislaam onze heures midi jot yonant bi ne ndigal ñëw na nan dem geeri dañ lay rey ci midi ci nga xam ne yow wut nga ci lislaam amatoo lislaam ji rek moo am ak ndigal rek ngay dégg mhm. dégg nga li ma bëgg a wax léegi nag kon mu des ci lan moo ñu wutaleeg ñun ñi nga xam ne dañ ne ay murit lañ ak ki nga xam ne ab Baay Faal la mm-hmm. ba ñun li ñu yàlla teg xëy na ñoom tegoowuñ ko mm-hmm. ma bëgg ci indi njàngale mu ndaw mm-hmm. mooy par exemple waqfu lillah xam nga ko yaakaar naa ñu bari xaw ma euh, lu na euh, suñ murtala dañoo wax ne alalam daf ko def waqf ba nga xam ne li a teg ci sama alal tegatu ko ci alal gi suñ murtala parce que dañ ko waqf maanaam ñaari sareet bu amoon wala ñaari mbaam wala ñaari bëy bëy wii ñu ne waqfu nañ ko ci ci lislaam mhm. bëy wii ñu ne moom kenn waqfuwu ko mhm. maanaam seen atte yëmatul ci sariya mhm. sariya dina topp bëy wi ñu waqfuwut te du topp wee te fu nag nit yàlla da ko nangul lislaam dafa nangul nit def ko boppam mooy jël sa bopp sarax ko lislaam loolu la loolooy di Baay Faal nag ndegam ñaari bëy donc benn bëy maanaam ñaari otop sëñ Murtala bi nga xam ne da ko waqfu diine mm-hmm. ak otop Baye Ndiaga Ndiaye yëmunu mm-hmm. yëmuñu mm-hmm. àtte ci lislaam kon ki waqfu boppam ci lislaam naka lay yeme ak boppam naka lay yeme ak ki waqfu boppam ci lislaam xam nga loolu ab sew sew la bi ci des mooy nga ñëw fekk ci lislaam ab jaam boo xam ne mën naa am jaamu Maam Mbaay mi dong la wala jaamu Moussa Dieng ca kastoor wala kenn mm. moo ko moom nga xam ne nangu na ne moom jaam la ci kii mm-hmm. boo ñëwee ci woor dañ ko cay amal ruxsa ak yombal boo ñëwee ci julli dañ ko cay amal ruxsa parce que jaamu Mamor Mbaay la mm-hmm. waa léegi ki nangu njaam moom nga xam ne jaamu bu yàlla la boo xam ne dafa jël boppam def ko waqfu lillah mm-hmm. ruxsa bi ba tey dox ko ah, ok pourquoi kon nga bëgg a taxaw fi nga taxaw yow kii waqfu boppam ci lislaam nga bëgg ne ko nooy bokk benn atte te bu doon ñaari sareta doo ko nangu bu doon ñaari biis doo ko nag bu doon ñaari kaasi café sax duñ ko nangooti duñ bokkati léegi ñaari nit ñi ñi daje te kenn ki wax fu boppam ci yàlla kenn ki wax fu wut mënatunoo yem dégg nga loolu mooy sew sew bi nga xam ne lu mat a seet la nga dégg ñu ne Baay Faal yéefar la parce que julliwul maa ngi jégalu ci kàddu gi sax waaye loolu dafa am ko jàngale dama koy wax mm-hmm. yéefar nag kooku ku ko wax yow yaay yéefar parce que kufru moom baatu tuba arab dong la kufru saa yoo ko déggee boo ko fiwee maamoor bay mooy weddi ku ne la bàyyi faal yéefar la laaj ko lu mu weddi man ñoo ko dañu woor gi yàlla diglewu ko wala yonent bi yàlla yónniwu ko wala alxuraan du alxuraan wala masaalik gi war ñu koo tabax maanaam lan lañ weddi ku weddiwut dara nga ne ko kéefar nga yow yaa yedd yàlla lu tax bàyyi faal nekk jullit mooy lu mu jàpp mooy laa ilaha illallah ba bu boo jékki-jékki woon dégg fii ay booy romb la laa ilaha illallah tam nga ne déggal Baay Faal yi mm-hmm. ñoom seen identification lañ ko def mooy laa ilaha illallah dëgg la laa ilaha illallah nag mooy diine ku ko jàpp-jàpp diine ko bàyyi bàyyi diine mm-hmm. taxawoon tey ma man de man maag mat mii dañu dañu diyoo mat jang na mm-hmm. jàpp man ma dem jàpp julli ma bàyyee ko laa ilaha illallah dem di julli junni rakkaa su nu deewee man maay yéefar bi ndax damaa dugal la ilaha illallah ci li may def su ma ne woon man sakaat laa jël zakat asaka rek laay def mhm. du ma def laa ilaha illallah di def sakaat di def zakat ba ba bañ bokk dee kee di def laa ilaha illallah bis bu ne benn per may def mhm. laay may def zakat bis bu ne junniy milliard mhm. su nu dee may yéefar bi parce que dugaluma laa ilaha illallah dëgg la bu dugg dara baaxut wooral junniy fan te jàppoo laa ilaha illallah kon ñoom li ñu jàpp mooy diine ku ko jàpp jàpp diine ku ko bàyyi bàyyi diine. dëgg la te ba fii ñu taxaw di wax ak yow nit mën naa dugg ci lislaam du julli du woor du asaka du dem màkka te bu dee dem àjjana. diggante tàkkusaan ak timis donc boo ñëwoon julli tàkkusaan ba noppi nga ñëw ne dugg naa ci lislaam avant timis nga faatu julli woo wóoroo asaka woo taboo kenn du la njëkk àjjana waaye kenn du dugg lislaam kenn du dugg aljanna lu dul da ngaa wax la ilaha illallah te dëgg la comme ni ko Baye Fall yi def dégg nga kon ñàkk xam-xam mënta tax ñu bëgg a jàpp ne loolu du bokkul ci lislaam daf di kay loo xam ne bu ko sëñ tubaa jëloon yoonal ko ci ñëpp du bëri taalibe ak mbaay faal maanaam dama koy wax benn benn benn waay bu ma waxtaanal ma ne ko ki woor ba ngoon toog baay faal bi yenu bóolib ndawalam indil ko ko jox ko mu xoolut bóoli bi fi mu jaar ba yegg si fii mu jàpp ne kooram gi moo gën bóoli bi xamul yàlla borom Touba parce que Baye Fall bi ni mu def ba indi booli bi boo ko boo ko xamee rek sa yaram day daw. dañ lay téléphoné ne la ñëwal indi at xaalis. Mhm. xaalis moom kenn du ko laal. ay mën noo wax lu ne waaye indi. Mhm. koo ko wax mu tàmbalee xalaat. Mhm. dañ naan la Baye Fall dañ naan la indi nga génn joxe. boo demee joxe ko ba noppi bëgg a dem ñu ne la déet takkal sa ndigg li nga takk yaa indi xaalis bi de. nga takk sa ndigg ñu ne demal ca daral ga jënde koy nag. nga dem jënd koy nag nga ñëw ñu ne la rendil nga rend ñu ne la feesal nga fees ñu ne la tojal nga toj ñu ne la taalal ci mbana yi nga taal di yëngal ba mu yegg nga taxaw ñu ne la yanul nga yanu di dukk dukki di dukk dukki ba ci buntu kër ñu ne la tegal fii nga teg jàpp na salal jeeg sa coono bépp da nga ci mos ñu ne an dëpp li tax ñuy dëpp lii yàlla ko moom bàyyi nañ ko ko soxlaatuñ ko buñ ko gestu dem di wutiwaat loolu indiwaat mhm. lii bu ko yàlla defoon mu dig jaamu bari na ñoo xam ne duñ ko jaamu ñoom. barke borom Tuubaa déedéet ak bëccëg billaahi am na ñoo xam ne génn bëccëg mënuñu ko nekk Baay Faal buñ ci génnee takk takk njara yeeg takk jàll eh, hmm. jalambaan yeeg bagas yooyu hmm. teg Baay Faal ni ko sëñ ni ko Seex Ibra tege hmm. am na ñoo xam ne génn bëccëg duñu am yàlla ñoom moo gën a metti julli dañuy dem julli ji wér di waaye bu dee affaire u joxeek maanaam daraja nga xam ne lu nit di wër daraja la ñu ne ñu la bokkutoo ci daraja nga d'accord gars yi duñ ko nangu wax nga dëgg de te xoolal euh, gis nga bi bi nga indee ndawal gi joxe ko ba noppi dafa am ñoo xam ne dinaan waa pourquoi ñoom ndawal gi léegi mënuñu koo joxe ci mbedd mi waaw mm-hmm. ah, comme dañuy jafal yàlla rek mënuñu koo jox ñëpp man ko déedéet Baay Faal bi dafa ne dama bëgg jël lii portable bi dem jox ko suñ borom ci loxoom natt ba xam ne yàlla moom am na yonent bi moo ko fi nekkaloon jóge na fi sëñ Touba la sëñ Touba moom da koy wóor ne daal moom ku gis ku dem kër sëñ Touba moom da ko fekk yàlla léegi nag suñ Touba moom fan ci kër sëñ Touba laa mën dem ba xam ne wóor na ma ne moom fii moom yàllaa ngi fi moom mu natt natt natt ba ne kër sëñ Muntaxa la di yanu bool yi di robb buntu kër ñoom sëñ Muudu Kara romb buntu kër maam Thierno Cheikh Awa Balla mhm. romb kër sëñ Cheikh Fall Mbawor mhm. romb kër sëñ Sidi Abdoulat sëñ wër romb kër sëñ Muntaxa gi doog ne ko dëj mu wër nañ la fii moom boo fi egsi nga ci yàlla boo ko rombee romb yàlla euh, mu doog faa teg booli bi kon donc kooku mhm. objectif mooy jox yàlla dëgg la bu ko joxee ki bu ko joxee yàlla ba noppi nag bu neexee mm-hmm. yàlla na ko lakk wala mu jox ko borom sareeti mbaam yi wala mu def ko lu ko neex doo déggaat Baay Faal bi di kaas naan lu tax ma jox sëñ bi sama yàq bi mu di ko jox borom sareet yi wala mu koy jox ñi ci bedd mi mm-hmm. loolu doo ko dégg mm-hmm. bi ci des mooy silvisme gi nga xam ne nekk na ci xaw wala boog silvisme yi nga xam ne nekk na ci ak Baay Faal doo dégg mukk ci kër Baay Faal yi ñu ne ak ngóor jigéen a nga fa doo ko dégg mas ngaa dégg kenn kuñ ne kii taalibe Baay Faal la bu wér mhm. ñu mën a laam-laamee li ñuy wax ay ngóor jigéen ak yii ñuy wax ak góor ñi ma pasteli tuñ ak di xeesal ak yu ñàkk fulla yooyu ngay oh, yëpp nit ñi nit ñi bëgg a toj yii di mars na euh, place de l'obélisque ak fu nañu naan dañuy dem di xeex góor jigéen mhm. xeex góor jigéen dëgg mhm. mooy dund Seex Ibra la ilaha illallah boo taxawee nit lim limal sax dinaa la nekkal Baay Faal leew waaye waaye na nay faale waaye kon donc noonu la affaire bi demee. dëgg la dégg nga. Mhm. su ko defee sëñ Touba nag dafa jël euh, Cheikh Ibrahima Fall maanaam teg ko ci buntam mu nekk identification bi nga xam ne. Mhm. soo ñëwee di wut ci moom. maanaam boo déggee da ngay dégg ñu naan booy dugg Touba làmp ngay njëkk seen. booy génn Touba lamp ngay mujj seen. Mhm. dégg nga mooy ak nuuru leer. leeral gi maanaam Sëñ Tuubaa Seex bi làmp baabul na maanaam làmp la bunt la dëgg la maanaam làmp la boo xam ne boo ñëwee Sëñ Tuubaa dafa mel ne ku nekk ci lëndëm mu nit la ko pour nga mën a comprendre kan mooy Sëñ Tuubaa mhm. comprendre nga li bëgg wax loolooy làmp bi maanaam làmp bi nga xam ne dafa niital murid yi mhm. pour ñu mën a xam yoon wi ñu mën a jaar pour am Sëñ Tuubaa dëgg la yoon woowu nag sabooteewuma julli parce que dañ koy def sabooteewuma woor parce que dañ koy yendoo mm-hmm. waaye li ñu bëgg xam mooy sëñ Touba. Mm-hmm. du ay julli ak ay woor ak ay wirdi yu bari du loolu mm-hmm. sëñ Touba philosophie bi mu bëgg ñu am ko dëgg mooy ngëm gi dëgg comme Cheikh Ibra nangu gi comme Cheikh Ibra mën a partager comme Cheikh Ibra dëgg la loolu sëñ Touba dëgg la waaye Njaay dégg nga parce que àdduna Euh, bu fekkoon ne sëñ Touba dañoo ñëw fi moom maanaam lii ñu def lu ñu teg sëñ mun Muntaxa tey. Mhm. su dul woon ak amour wala reconnaissance. bi mhm. nga xam ne seex bi defal nañu ko ba pare. Mhm. boo ñëwee mënoo koo tuddee lenn lu jaam ak sangam. ak njaam lay doon ak ak sangam. koo xam ne da koy raamal jox ko xaalis mu tefli la doo ko saña laaj maanaam buur ak dag la. dëgg la bu ci bu ci bu ci bu ci bu ci. reconnaissance bi bu ci Cheikh Ibra dugg. comme li nga bëgg a wax xam nga koom de. bu baax a baax a baax xam nañu ko bu baax a baax. gis nga àdduna fi na palais dakaar bii. ku la fa yóbbu woon ci lu dul sa sago tëj la fa ci lu dul sa sago kaso la. la neexu la. dëgg la li ñuy def ci sëñ Touba. li mi lu la neex tudde ko waaye neex nanu neex nanu dafa Cheikh Ibra ci ñun mooy neex la ñu def neex ñi di ko def loolu tax du buur ak nag mm-hmm. Mm-hmm. parce que sëñ Touba faw da ngay doon Cheikh Ibra mm-hmm. da doon Cheikh Ibra pour mën a gërëm sëñ Touba sëñ tubaa mën laa gërëm parce que ni ñu ko ni ma koy waxee lu bari sëñ Touba amul maanaam ci ci jëflante sëñ Touba ak ay njabootam doo fekk ñu ne ñu ne ñu ne lii sëñ tubaa def na ko Cheikh parce que famille sàngam la bokk parce que diplôme sàngam parce que nàngam mm. déedéet doo dégg mukk ñu ne Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ wala sëñ Daaru Assane Njaay mm-hmm. famille baa tax wala wala nam rafete woon a tax mm-hmm. amul sëñ Touba mësta fay nit moom koy liggéeyal ko rek loo xam ne da ko influencé ci dara dëgg la dëgg la maanaam loolu laa bëgg sëñ Touba kenn mësu koo influencé mm-hmm. ci taar wala ci juddu wala ci mën a wax wala mën a jàng ba mu jox la lu toll tarafata xëy cër yàlla yi dëgg la de looloo tax sëñ Touba lim defal bopp lim defal ak njabootu boppam ci loolu la defal ñim jurul dëgg la loolu nag moo amul feneen mooy boo demoon tey kër sëñ Saaliw wala kër sëñ Abdou Khadir mhm. mënoo dem te fekkoo fa lu dul boo jege woon kër sëñ Saaliw dem kër sëñ Isaa jenn mhm. ca sëñ naar jenn mhm. la nga bàyyi ko sëñ Abdou Khadir rek koy fekk dal ci buntu kër ba raam jub ko nuyu ko bàyyee ko dara booy dem mu tiflil la loolu la sëñ Tuubaa defal ñëpp. Mhm. li ci des nag nga xam ne da ngay doon Cheikh Ibra pour man koo mën koo def. Mhm. mooy nga am reconnaissance su. Mhm. xam ne sëñ Tuubaa li nga am moo la ko jox. xam ko dëgg la voilà li nga am moo la ko jox. nga am li ñuy wax reconnaissance. mooy nga mhm. gërëmaat sëñ tubaa nag. mooy daal xam ku feeg fàttewoo li la fal. mën ngaa bañ a du la folli ko du la du la dikkal. loolu laa bëgg laa bëgg a mhm. Mhm. li ma bëgg a wax rek. mooy même bu fekkente ne. doonu Baay Faal ci jébbul. mais nga doon Baay Faal. ci ni ngay doxale ci sa digganteeg sëñ Touba. dëgg la dëgg la tubaarkalla loolu la sëñ Touba tax. mu teg Seex Ibra. ni ko noonu danaan murit yëpp jëmlu ci Seex Ibra. waaye noonu la sàkke woon yeneen i seex. kenn ku nekk mu jox ay nit ñi jébbalu ci yow. waaye maanaam Cheikh Ibra daa mel ni taal buy tàkk. seex bu nekk da ngaa rocc ak mat. yóbbaale pour sa Cheikh Ibra nekk sa biir kër. loolu affaire bi dëgg la waaw kon dëgg la ah, tubaarkàlla guddal. Mhm. tubaarkàlla euh, xam naa sëñ Mamor mel na ni deux heures et demie jot na. Mhm. xam naa waa RIS sax ñu ngi ñu ngi ñuy appel di ñu wax waxtu week yooyu xam naa liñ bëggoon a jàllale li yëpp. waaye émission bi nag waaw moo moo demee noonu waaye. bu ñëwee rek tàggatoo lay doon sëñ Moustapha euh, li mu ci tegal day nekk lu lu lu lu lu mu tuuti ci ci xasida xëy na waxad karam naa bu ma juumut euh, lay doon Cheikh Baaraat bu ñëwee mën a tëje foo xam ne rek moom la ñuy moom la ñuy tàggatoo balaa sëñ Mamoro jël kàddu gi ñuy wax ni euh, soxna Momi Diop noo ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare mi ngi ñuy topp di soxna su baax su nekk fii Sacré Cœur di siyaare borom këram muy sëñ Basiiru Jaw nga xam ni day wëllëri sëñ Sidi Ndiaye nga xam ni bi mu fi ñëwee fa la ñu ànd muy ku baax ku bëgg sëñ Touba boobu ba léegi mi ngi topp jotaay bi donc koy nuyu di ko siyaare magoog waaw moo euh, sëñ Lamine Sagna ma koy nuyu bu baax moom émission yi yëpp nee na yi jàll ci télé bi la koy xool ma nga ba Australie waaye nee na ma fii ma nekk nii mel man maa fi nit ku ñuul te taalibe bi sëñ Touba la loolu nag yaakaar naa ni loolu moom moom li mu li mu wax bari na kon noo ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax suñu tante soxna na koy fay uh-huh. ma nga ba Touba ah, ak waa kër gi yëpp ak maam Thierno Mbacke ñoom ñëpp ñu ngi bàyyi xel uh, sa jaw nee na ñu ngi lay nuyu di siyaare noo ngi koy di ko siyaare soxna Khady Seck ñoo ngi nuyu ak suñu tante nag ak mbooleem waa famille uh, Mbaye Diarra Ngom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare soxna aadama Niass ak daayira bëgg fan bi ñëpp ñu ngi ñuy topp ci li nga xamante ni mooy plateau bi sëñ Mamor muy lu am solo xam naa damay bàyyi rek nga seetloo ci teg ñu daal di mën a ñëw synthétiser balaa sëñ Mor a euh, tëj jotaay bi. ca sëñ moor Gueye mii nag toog altine bii di ñëw nga xam ne day tombeek ñaar fan koor ñaar fukki fan weeru koor gi. sëñ Bass Xaadim aw ba xam nga ñu ko. nga xam ni Cheikh Ibra Fall la ko moom. Mhm. moom mii lañ invité. ñeneen ña ngi cay war a topp ngir ñu éviter leen dinañ dinañ xool nu ñuy defar bu soobu yàlla incha allahu rabbi waaw suñu bas xaadim awa boy eh, mhm. moom itam Bamba Diop ñàgg Bamba Bamba waaw mi ngi ñuy topp Bamba Diop Karim Sëñ Abdou Karim waaw mi ngi ñuy topp xam nga laal Cheikh Baara laal na ko ndax moom mhm. Baye Fall lay dund dëgg la kon noo ngi koy siyaar ba ko nuyu au passage mhm. sëñ Moustapha di bég ci sëñ Moustapha Badiane ci disponibilité bi di jégalu tamit eh, ñi nga xam ne dañ doon ñëw këram te tey buñ fa demee duñ ko fa fekk dëgg la ndax moom Euh, kuy dimbilee la te loolu ma wax valable na ci Cheikh Bara Cheikh Bara na daf ma laal tey ndax dafa dem ci koo xam ni lii seex Bara Ndiaye wax sëñ Moustapha euh, danga koy ko ko ko ko koy comparé ak li sëñ Abdou Samad Songe bu wax ñu bëri ki démb maag yow dafa ne euh, Serigne Touba de nit ñi bëgg nañ ko waaye wóolu ki am na fu mu dese daal ne wóolu Serigne Touba nag ki ko wóolu koo xamante ne nii man ku ma marqué la mooy Cheikh Ibra Fall Cheikh Abdou Samad tekki ne ndax bu nee sëñ Balla Coro wala maam Cheikh Anta wala sëñ Mbàkke Buso kenn ku ci ne yaa ngi bëgg sëñ Tuubaa waaye am nga loo xamante ne nii yaa ngi ko topp mm-hmm. yaa ngi koy def yaa ngi koy def yaa julli yaa ngi woor ñi dem nañ màkka ñii ñi ngi nat asaka mm-hmm. ba ci sëñ gaawaan doomi sëñ Tuubaa yi noonu waaye nee na kon tey bu ñu demoon ba yow malxiyaam ci ci ci jéggulu ci kàddu yi suñu borom ne si tubaab fii daal moom amoo fi dara lu sa jëmm nee na kon Seex Ibra rek ay ñàkk. ndax moom lépp la bàyyi jàpp. waaw ndax moom ndax moom. moom moom moom moom deful leneen. moom sëriñ bi la jàpp amul leneen lu mu def. lu dul liggéey bi mu liggéey sëriñ bi ak bëgg gi mu ko bëgg ak li mu li mu defal sëriñ bi amu fa leneen. waaye ñee tey bu ñu leen woon tey kat kii ngeen toppoon nangam dañ naan ah man kat am naa lu ma defaloon suñu borom ci ko côté sangam weeru koor yëpp laa doon woor nangam laa doon def dama daan dem màkk waaye kee moom daa bàyyi lépp def sëñ Tuubaa kon loolu dañ koy comparer ak li Cheikh Baara wax dëgg la euh, li nga xamante ne nii sëñ Moustapha indil nañu ko ci xasaa xasaayit mooy li ma waxoon sànq rek mm-hmm. gën ngaa bëggloo nit ñi te xasida te lii day day yoon ndax nit ñi leer na ne dañ ko dagg dugal ko ci seeni kii kenn ku nekk de parce que doomu aadama lu ko jariñ rek la bëgg te njariñ kese nga nu wax kon nanu nanu nanu jàppaat loolu suñu safaa di am mbégte ci soxna euh, faatim Baas mhm. yi doon naan yëpp moo ko jël ci alalu boppam dëgg la ñëw indil na ko ne tey dama leen defal loo xamante damaa mhm. bëgg tey baat yi ubbiku dëgg la euh, ci ci ci ci ay xeet kon noo ngi ñaan suñu borom yokk ko mhm. yokk ko ak njabootam te mhm. jàmmal ko ci barke Sëñ Tuubaa soxna maam Marème ñoo ngi koy siyaare soxna maam Marème ñoo ngi koy di ko maam Jaara Buso fële ca moom it ñoo ngi koy ziar di ziar bu baax a baax Sëñ Safaa euh, nga xamante ne mooy euh, bu baax a baax soxna soxna aram soxna Aram Diop nekk ca Thiès. nga xam ni maag yow moom. dañu toog yaay rek mu ne seen assurance jeex na ci oto yi. dëgg la ñëw leen ma yokkaat ko defal ñu ko at. dëgg la bëgg loolu Serigne tubaab di ko liggéeyal moom itam noo ngi koy gérer. Mm-hmm. waaye sëñ Moustapha euh, li Seex Baara wax. Mm-hmm. guerre boo mës a gis ci àdduna. Mm-hmm. nit moom moroom moom rek ko waral. kenn ku bëgg ku la moom am ne da ngay ne diw ci askanu njaam la bokk. ma rëy boppam. muy rey boppam demoon nañ dem dem nañ ba am na ñoo xam ni tey bu ñu ci kër di ñaan di ñaan soxna dangay gis ku jóg daal di ne xanaa du diw xam dañoo moomoon maamam nga gis ñu naan kon kat jox ko jox ko sunu doom ji nga xam ne daa set wi ci moom kon day daal di doon problème kon kenn ku bëgg ko la moom amul fi mu ne France bii ko Hitler bëggee moom France daa bañ ñu xeex Kajoor bëgg moom bawal bawal lànk ñu xeex fi ne coow li ci politique bi sax parti bii daa bëgg yilif bii rek foo ko xool kenn ku bëgg ku la moom am jenn jëm rek a mës a nag ñépp ne ko yaanuy moom nga xam ne doon jaamam wala nga doon jaamu jaamam dalay dàq Cheikh Ibrahima mi mu ci tudd léegi exemple la ci ndax dana woon sëñ Tuubaa sa sang gi àgg na fa sama nja sama njaam gi àgg waaye sang njaam la gu mujj mottali ko ak sang ndax tey jii li ñuy doon doon jaamu waa Mbàkke ñoom waa leen tey bu sëñ Seex ndigal ne woon dër ñu ñëpp ñu wàcc ci suuf kon loolu mooy teg sëñ tubaa mooy koo xam ni xam nga tey dama ne la sànq ku nu moom ku ne da ngaa moom sa personnalité wàcc sëriñ bi rek lay moom sa personnalité yokk dëgg dëgg la comme mu moom rek nga kawee kon yàlla na moom jërëjëf sëñ Moustapha jërëjëf sëñ Mamor euh, wax nga dëgg yaa ñuy moom moom du indi coow maa leen di moom rek indi coow waaye yaa ñuy moom <laughs> du indi coow kon sëñ Moustapha xam naa sëñ daam waa RIS ñu ngi leen di jéggalu ndax ñoom nag bu leen fàtte ni ñoom bu émission bi guddee day metti ci ñoom ndax ñooy teel a xëy dem Masalik fa la ñuy yendu ba daanaka nafile léegi bu jeexee 22 heures et demie la ñuy ñëw enseigné waat ba benn heure bi waaw waaw topp émission bi tey nag laa ma a gis Marème Kane waaw toog ba heure bi nelawul di seetaan di topp émission bi te xam ne daa war a xëy suba tey de góor góorgóorlu nga dëgg la say na bu kan noo ngi koy siyaar baax mhm. ak euh, wëjur Mor kan nekk fële ci Géejawaay dëgg la bëgg loolu Serigne tubaa ñoom ñëpp ñu ngi topp émission bi Serigne Moustapha ak mhm. mboolem banlieue bi bëgg fàllu mhm. noo ngi koy siyaar baax gunda léegi ak ñi nga xamante ne ñooy waa kër Serigne Touba nga xam la recette Baye Fallou di ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar jërëjëf jërëjëf sëñ Mamour sëñ Moustapha mhm. Mhm. dëgg la dëgg la mhm. waaw comme ngeen may ma ma ziyaar mbooloo mi nga xamante ni sëriñ Mourtada Mbacke mhm. radiallahu taala anhu wa mhm. nafaana bi barakaatihi amin moo leen jëloon teg leen ma teg leen ci sama loxo mhm. sëñ Maamoor bu mu ñëwee it feddali loolu dëgg sëñ Mourtada ci boppam moo leen tuddee mawaahibu naafi fi madaay shafi muy cellule Dagana bi Touba Dagana cellule Ndar bi Touba Ndar cellule Ndakaar bi Touba Dakar. Mhm. ak cellule bu nekk Amérique. Mhm. ak cellule bu nekk Europe. Mhm. ñu leen di ziar ñoom ñëpp ñu bokk ci mborom mi di ci liggéey. am ci kuréel gu nga xamante ne nag ñooy yëkkati xasida yi te ñoom man dama jàpp ni ñooy sama mbubb njiit laay ndax awma ñu leen ëpp. kon ñu wax tuuti rek lu ñu yéene woon sax wax dafa ëpp lii. waaye ñu wax tuuti ci nuur daaree ni benn wax mhm. benn wax ci mhm. wala xadd karam naa su ci xajee nag mu am mhm. buuñaa bu ñu def ci yenn xasida yi rek wax ci jàll lu ñoo wax ci nuur daaree ni moo di sirru kun fayakun ndax sëriñ bi ci lu ñuy gëstoogul te yeggagul gis nañ ci sëriñ bi def ci sëñ mhm. kun fayakun téeméeri kun fayakun ak juróom-benn. Hmm. amiin da nga fay danga fay micro bi waaw bisimilah waaw mi ngi tàkk waaw mhm. Mhm. mi ngi wax mi ngi wax bisimilah. téeméeri kun fayakun ak juróom-benn. yii daf ko ci feeñal. wa jaal kitaabaka maay xay sukkub. yaa waahiban wa habtadi kun fayakun. واطلب بهادي ابدا حيث اكون بلا اظن ولا جوع كن فيكون nga gis ni ñi dafa ci feeñal wa habliyan yawma bihi kun fayakun bi daf'i wal jalbi wa tayyib iskun wa li hab fi lxatti ma laysa yakun li ahadin yaa man lahu kun fayakun yaa man lahu kun fayakun yaa malik xamayta kulli an mashaqaati suluk maa salaamin min siwaaka laa yakun tahabudi bi yumnihi kun fa yakun wa habdiyan yowma bi xeyr sabi kun fa yakunu li muaadi yaxli bi kon mi gis ni yëpp ci biir bi di fës ci mu woyka ci soo jëlee keef keefu kun gi mu indi kafaaniyal qaadiru waqtadiru maa xaasahu min al anaai al qadaru mu jël nun nafa li xayri jihati ma saa mhm. kaafin kafaani kulla man saa mhm. mu jël faagi wax faraxtu xayral xalqi tafrixa ngidum mhm. inni lahu xibbun wa xillun wa xabib mu jël yaay bi yasar il qadiru ma ma taassara ala siwaay walhuda bi fassara mu jëlaat keef fayakun karama nil karimu wal mukarram wa qaadani bi dikri mukarram mu jël waaw gi wax waajah li jamaalu baaqin naafii wa qadalil baqaa maal manaafici mhm. mu jël nuun gi wax nazaa lil barakata muqtadiru wa li jaabi laysa yamxu kadaru mhm. yooyu mhm. muy kun fay kun bu mu ci way mu am nag yu mu ci dëxëñ sirub fay yu mu ci dëxëñ soo jëlee bayit bii wali jaalta bi foo kulla chahri fawqa adaatil wara fi dahri soo ko addadee daf lay jox ñetti junne ak juróom benn fukk ak juróom ñett trois mille soixante huit soo ko xoolee fukki kun fay kun la ak ñett nga jël la laka shukuri ala atmani yaa malikan malki zamani soo ko addadee deux mille trois cent soixante la ñaari junne ak ñetti téeméer juróom benn fukk soo ko xoolee fukki kun fay kun xool na mu koy dëxëñ ci biir xasida mhm. maa salaami yuxdilu safaa yajaalu kulli lil soo ko àddadee daf lay jox deux mille huit cent trente deux ñaari junni juróom-ñett téeméer fanweer ak ñaar mhm. soo xoolee fukki kun fay kun la ak ñaar mhm. alanta lii bilaa adan faraxtani la yemtani akramtani madaxtani soo ko àddadee daf lay jox trois mille sept cent soixante sept ñetti junni juróom-ñaar téeméer juróom-ñaar fukk ak juróom-benn soo ko xoolee fukki kun fay kun la juróom-benn nga ñëw salli salaatam bi salaamin tasmaaw biha shukuri am naa li tajmaaw soo ko addadee daf lay jox trois mille trois cent quatre ñetti junni ñetti téeméer ak ñett soo ko xoolee fukki kun fay kun la ak ñett nga ñëw chakartuka allahuma bi taxaruki yaa mutxaf yaa mutxifam bi muxjilin lil maaruf maarati soo ko addadee daf lay jox quatre mille douze ñeenti junne ak fukk ak ñaar soo ko xoolee fukki kuñ fay ak ndax diwaan la diwaan euh, xasida gi ay xasida nga ubbi muy ñeent xasida mhm. nga ñëw ahmadu mughniyan taala an sinna wa kaana bi kulli shay wa sanna soo ko addadee daf lay jox trois mille cent soixante cinq mille ñeenti junne juróom-ñaar ak juróom-ñaar soo ko xoolee fukki kuñ Mhm. nga gis ni kon ñu gis sëriñ bi dëxañu kum fekk te foofu mhm. ñu am ñoo luñ ci xaw biral tuuti rek mhm. gis nga ayatul kun fayakun bi soo ko jëlee bind ko bu ci nekk ci lima muy deux cent trente six nga wut reenu nepp nepp xooj ko di ko soccoo foo toog loo a sa làmmiñ suñu borom def waaw akbar mag ñi fi daan di def suñu wéetee ba dañuy génn wax ak nit ñi soccoo ko buruusu ko waaw taxaw ni nga xool su fekkee ni taflit bi demul ba suuf. Hmm. takk ci diggante bi suñu gën a wax suñu borom bi. laa ilaaha illallaah. kon loolu waaw sëñ bi xam naa xam naa xanaa waxtu bi waaw waaw. bu ñu tëjee nag. waaw. Euh, wala qad karamnaa bi sa xasida. ah wallaay. isrif quluban nasara. yaa xadiru ila nasri wa rubbiya man qad azza dëgg la de. gis nga soo jëlee isrif quluban nasara. Hmm, hmm. soo ko àddina 832 moo jàpp wal xaytu aleykum mahabbatu mm-hmm. Mm-hmm. nga jël ida masri wa rubdiya mm-hmm. soo ko àddee daf lay jox 688 soo ko boolee isrif kulóoba boobu dafa jox 1530 te loolu dafa jàpp 306 juróomi yoon 306 mooy yàqahaar kon xasida la bu nga xamante ni ku koy jàng ci réewu nasaraan yi da nok te daanu wuñ. xam karam naa waaw dëgg la karam naa ci biir tubaab. Mhm. daañu ko mujj kon ñu bàyyi la nga tàggatoo rek boo ko defee waaw. abarakaatu. ñëpp. Mhm. di sant euh, euh, dëgg la. Mhm. Ah, <laughs> ndeysaan euh. <laughs> jërëjëf euh. mhm. mi waaw mhm. dëgg la ah, dëgg la dëgg la mhm. dëgg la alhamdulilah musal la yit na ah, ba nga àggale li nga yéene defal sa maam defal ko Cheikh Xadim di sant it sëñ Akasa bu fi jóge de tooyal na xol ci njàngum xasida dëgg la dëgg la di sant Serigne Diaw mu mm-hmm, mm-hmm. dëgg la dëgg la dëgg la del di gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf Badiane di sant nag di gërëmaat Cheikh mm-hmm. Abdoulaye Khadim sax ñi nga xamante ni de su amee lu nit ñi di naw suñu taalibe Serigne Bank Diagne ci jëmm dëgg la ndax damay wax ne suñu woy jur yi ñu yaafus mhm. waaw ñu jégalu ci am ñu jur nañu nun ñu war a jur dëgg la ak fu ñu war a jur te xamal ñu lu ñu war a xam mhm. war a xam lu ñu war a xam mhm. waaye nag cër bi Cheikh Abdoulaye Khadim dëgg la dëgg la dëgg la bëggaan dëgg la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu Cheikh Bara euh, ñu bàyyi la yow tamit nga am loo ci teg rek daal di daal di tàggatoo wax rek jox ko. Mm-hmm. when

la xaar di la xaar ci nga xam ne maanaam fii ne àdduna kenn ku nekk dafa am fu la fu la àdduna di xaar dëgg la fii ne sëñ Mamor man sëñ Moustapha man mii mhm. tey bu ma tajoon sabar yi suba mhm. luñ ma mën a fay ba ma ñibbee Touba gàcce laa fay fekk mhm. ndax xaaru juruñu ma pour ma pour ma toj sabar dëgg la keneen ki nga xam ne dañ koy xaar pour mu toj sabar moom bu demee bu tojee sabar bu ñibbee sër la fay fekk ndam ak gàcca ça dépend ci nit ki ko yenu am na lu may yenu tey man ndam lay doon ci man am na keneen ku ko yenu gàcce la ci moom dëgg la kon ñun suñu gàcce mooy ñuy doyee dal li suñu maam yi bàyyee bu dul lislaam bu dul dara sax maanaam noobulees gi ci nekk ak bàyyee gi li ko suñu maam bàyyee te jur ñu tuddee ñu ñooñu yar ñu jébbale ñu man bañ may jébbale dañ koy lem rek na ma am joxal sëñ bi kon sama bàyyi lii la bëggoon ma nekk ci mooy ci taalibe dëgg la kon nag mhm. ñun ñëpp laay wax jeunesse bépp mhm. ñàkk fulla mhm. wala critique wala mm-hmm. dara. Mm-hmm. bul ko déglu ci li nga xam ne yow loolu nga. dëgg la ñun ay murit lañ yoo xam ne mm-hmm. dañu jur ci murit. yar ñu ci murit préparé ñu pour ñu dooni murit kon bu ñu demee ba toll fii ba mën a xàmmee suñ ndeyjoor suñ càmmoñ lu ñu nekk lu li murit rek yàq nañ ko dëgg la da dégg nag ñu naan man sëñ Tuubaa dong laa gëm gëmuma keneen wala xasida yi laa gëm gëmuma leneen nangam ak nangam loolu lépp affaire yi tappale rek la dëgg la gis nga sëñ Tuubaa ni ma koy misaale toujours xar maam Ibrahima rayoon. ca ba ñuy tabaski. xar moomee. men xar la. dee na. dafa tolloog dara jaay nag. bi saabu bis ba dellusee. la bokk ak moomu askan. te nuróog moom ñoom la ñu rey. ñoo am darajay tey. dëgg la ñoom la ñuy wër di leen jël cinq mille ak cinq cent mille. parce que ñoo nurook askan. xar ma maam Ibrahima rayoon. Mhm. waaye bu doon tane xar ma doo ngay dara. Mhm. kon bu kenn tabaski. dëgg dëgg la bisub tabaski. bis boobee. Mhm. bis bañ tabaski woon. du dikkaat. tubaarkalla ab bis du ñëwaat ñaari yoon. bis booba dem na. du dellu siwaat. waaye bi bu at mi dellu see di romb di romb ba bis ñu ne bis bii moo tolloo woon ak bis booba. bis booba moom am na dara darajay. bokk gi mu bokk ak bis ba maam Ibrahima tabaski woon dëgg la dëgg la bu ñu ko defee deux mille vingt et un mu am daraja ja bu ñu ko mhm. defee deux mille vingt bis bi sëñ Tuubaa doon dem ca géej ga mhm. jóge Mbàkke Bari ci bisub samedi ba maa màggale mhm. tuuti rek dafa maa ñor daanaka moom ma tax ñëw dëgg la mooy dix-huit safa jooju benn bis la samedi la woon mille neuf cent mille huit cent quatre-vingt-quinze samedi mille huit cent quatre-vingt-quinze du amaat ci àdduna dëgg la bis ba maanaam léegi nag 18 safar ji tollook moom ci 2022. nga xam ne du moom. bis ba moom dem na du moom. waaye danoo tolloo nuroo. man daa da daa am darajay tolloog moom. Hmm? dafa gën ci ñun gën ci bis yëpp yi nga xam ne daa romb te tolloowut ak moom. dëgg la kon sëñ Touba. ki yàlla dogal mu tolloog moom nga mën a natt na diw jur diw jur sëñ Touba jur. Hmm. kooku mënta yam. ak ku amut loolu ci sëñ tubaa su fekkee kis ki am dareeti sëñ tubaa yem naag yow mhm. wala mu kenn mhm. kon tabaski du dara màggal du dara wax nga dëgg wax nga dëgg bu dee sëñ tubaa doo ngay dara kon xaruma ma doo ngay doon dara dëgg la bu dee sëñ sëñ tubaa doo ngay dara kon 18 safar ja sëñ tubaa demoon bis boobu doo ngay dara beneen bu nuróog moom it doo dara dëgg la kon nun mhm. na maam yi laxasaayoo woon di ànd ak sëñ tubaa te def ko ci ngor ak dignité gu mat sëkk nan laxasaayu ànd ak moom noonu. ànd ak njooj njabootu sëñ Tuubaa gi ñu fi fekk ñun. Mm-hmm, mm-hmm. pour ëllëg ñiñ jur. Mm-hmm. mën a tekki dara. lu ñu am rek ñun ñu am lu ci des. tubarkalla. wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf euh, Cheikh Bara ñu ngi jégalu bu baax a baax xam naa ni waxtu bi moo demee noo xamante ni. Euh, bëggoon nañ sax sëñ njaw mi sànni ci kàddu sëñ moor mi yëkkati jotaay bi moo moo moo toll foo xam ne xam naa euh, ñu ngi koy jéggalu ñi ci des ñëpp xam naa moom mii sax sëñu safaa faaw ñu woowaat ko sëñ Baara mii faaw ñu woowaat ko ndax loolu moom la ñu bari bari wax ni lii yéene woon a dégg yëpp bari na lu ci des moom mii li mu prévoir woon boo xoolee li mu tiim nga xam ne li mu bëggoon a xaaj bi sax waxu ko ci njariñ yi nga xam ne xasaayid am na ko Cheikh Baara mii tasaare na ko noonu ñuy sant bu baax a baax mbooleem jànkatu xasaayid yi fi teew nga xam ni ma leen fi indi moom Cheikh Baara bi muy ñëw ñëpp a waaj ànd ak moom ndax euh, këram fa la ñëpp di nekk muy nit baax ku tedd bëgg sëñ Tuubaa bëgg xasida yi bëgg ñi koy yëkkati di leen teral loolu moo ci sëñ Moustapha mii sëñ moor mii waxaaleel naa ko ko ndax miraaran milti miraaran ay at jóge nañ fi di ko fekk këram mu di ñu waxtaanal ci xasida yi di ñu diggal di ñu tette di ñu di ñu xelal di ñu jàppale ci fànn yëpp ba tey jii mu bëggoon lépp yàlla dimbali nañu ba ñu bare ci ñun kenn ku nekk am nga loo nekk loo xam ne wóor nal ni yaa ngi sant sëriñ bi liggéeyam ci la bokk bu baax a baax ñu siyaare suñu Abdoulahi Khadim Sarr suñu waajur suñu sëriñ suñu lépp maa nga ca ndar ak mboolem daay mubaarak ak mboolem ndar gépp di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi te wéral ko di ziyaare bu baax caméraman yi waaye sëñ daam di leen jégalu ci guddi gi di ziyaare sëñ jibril ndaw sëñ mbàkke ak mboolem koo xamante ni technicien nga boo xamoon yaa ngi doon jàpp ci liggéey bi sëñ Mamoon Mbaye suñu wóolëre soxna si Mbàkke Balla ñu ngi leen di siyaar ba ay dara sëñ Jaw ñu ngi leen di ñu ngi leen ñu ngi la koy tuubal ba ba dellusiwaat ci beneen jotaay rek ñu ngi leen sant leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf